nga xam ne ràññee naa leen euh, ñu bokk ñu bokk Pastef euh, on retrouve deux ou trois noms euh, donc euh, comme il l'a dit dañoo dañu tabb pour ñu liggéeyal askan bi nekk ñu fii pour séddoo mbir mi du séddoo maintenant quelles vont être les conséquences Euh, est-ce que don de soi bi ñuy wax dinañu ko dëggal euh, ba nangu ñoom ñu ñëw ci nguur euh, ñu bari ci ñoom munuñu mettre en œuvre ce ce, projet la mais bu fekkee ne liggéeyal askan bi rek moom moo leen tax a jóg en tout cas cette équipe là gouvernementale là mën nañu ci am yéene. et mhm. heureusement euh, que ñoom décevoir ñu les attentes parce que mënoon nañu mënoon nañu am déception. Euh, bu ñu tegee équipe bi mais équipe bi ñu teg euh, dinañu ci am yaakaar bu bare bare mhm. euh, Maïmouna mini gouvernement bu bees bi tamit leneen li ñu ci nemmeeku mooy parité bu ñu doon waxtaan sànq dafa mel ni tamit respecté wuñ ko torop parce que jigéen ñuy jox post ministériel daanaka bariwul voilà la la nag dafa war a nekk un combat des associations de femmes ni ñu combattre sous le lead à l'époque de Aïda Mbodj bi nekkoon ministre de la femme porté woon combat bi capitaliser ko euh, ba wadd euh, matérialiser la la la parité mun nañ ko kon continuer euh, combatre ba nga xam ne dinañu un jour comme ça se fait au Rwanda mm-hmm. et dans d'autres pays de l'Amérique du Sud dinañu am une parité parfaite entre hommes et et, et femmes euh, voilà il y a pas mal de de de, de femmes euh, mais ils sont toujours dans les mêmes proportions euh, que que que que Macky Sall. Mm-hmm. c'est dommage pour les femmes il y a tellement euh, de compétences euh, de compétences féminines. euh, qui peuvent égaler ou surclasser même euh, les hommes dans la conduite euh, des affaires euh, publiques euh, c'est dommage que ñoom décomplexé wuñu seen bopp mhm. ci wàllu boobu on retrouve très peu de femmes et je vous en parlais day am toujours triche bu ñu nee <laughs> une équipe de vingt cinq personnes dinañu ci voilà dinañu ci toftal Euh, toujours cinq secrétaires d'État. Mm-hmm. quatre il faut attendre. la nomination prochaine peut-être de ministre d'État. mm Donc bu ñu demee euh, ba ca cëppaandaw la boo xoolee réellement. Mhm. Euh, ils vont en être à trente cinq à quarante. Mhm. voilà donc euh, gars yi bu ñu naan vingt cinq. voilà ils avancent un chiffre magique comme ça mm -hmm. euh, donner de respecter la promesse mais c'est vingt cinq ministres Plus. et cinq secrétaires d'État mm-hmm. euh, doon na doon baax nag ñu yemoon euh, ñu yem ñu defoon vingt ministres cinq secrétaires d'État mais a vingt cinq ministres et cinq secrétaires d'État donc presque une euh, une une trentaine mm -hmm. voilà et j'ai une source qui me disait que l'équipe de trente et ça c'est autour de 30. on n'est pas loin des 30 euh, Maïmouna Ndour Faye mu mel ni aussi la diaspora a été au cœur de toutes les premières prises de parole du président Bassirou Diomaye Faye wax na ko à plusieurs reprises hein, des Sénégalais d'ici et de la diaspora en tout cas participeront à ce gouvernement on nous dit que Alioune Sall le ministre de la communication des télécommunications et du numérique et le coordonnateur de Pastef France mu mel ni c'est en tout cas une promesse qui commence à être tenue avec cette nomination bien sûr on retrouve beaucoup de membres de la de la de la diaspora euh, moom Bassirou Diomaye Faye d'ailleurs dans sa première adresse à la nation et même dans la deuxième adresse à la nation Euh, doon na ko doon wax man bi ñu waxee Alioune Sall tout à l'heure euh, voilà j'avais point Alioune Sané la la sama xel jàppoon <laughs> euh, ba ma naan ils ont un bon communicant mais c'est Alioune Sall le coordonnateur Pastef de de de France de de qui est membre de la diaspora ministre de la communication voilà ministre de la communication mais il n'est pas porte-parole du gouvernement c'est Moustapha Sarré qui est porte-parole du du du gouvernement un excellent Euh, communica un homme euh, de terrain euh, et puis un homme qui est issu des mouvements de de gauche moom moo nekkoon le coordonnateur de Daara Cheikh Anta Diop mhm. maanaam l'école du l'école parti alors tout à l'heure à comme ça Euh, j'ai pas le nombre de femmes euh, maa ngi naan ils sont Elles dans les quatre. mêmes euh, ils sont dans les mêmes proportions que vraiment dommage quatre femmes dans bien. une équipe gouvernementale de vingt-cinq personnes mm -hmm. ah non man je suis choquée sachant que les femmes ont été en de, de mhm. mhm. euh, de cette campagne là ay Aïda Mbodj Aminata Touré Maïmouna euh, Maïmouna Bousso mm -hmm. et mhm. bien d'autres mais quatre femmes les no mais on est au Sénégal <laughs> il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes yéen ci ni Sénégal toll yëpp pour composer une équipe gouvernementale ñeenti jigéen ngeen yaakaar ne euh, am nañu dignité euh, pour servir cette république là euh, il va falloir faire des efforts monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye monsieur le premier ministre Ousmane Sonko faites Ce pays regorge de femmes de talent. Ce pays regorge de femmes qui peuvent diriger ce pays-là à votre place. Ce pays regorge de femmes qui peuvent égaler ou même surclasser les hommes euh, dans la gestion des affaires publiques. Quatre femmes. Non mais on est dans quel pays-là? ah fii le machisme du fi de da ngeen di jël jigéen ñi jël les compétences féminines Euh, indi leen au sein du gouvernement quatre femmes dans une équipe gouvernementale ça c'est du jamais vu en tout cas de 2000 à nos jours c'est la première fois ma gis un gouvernement ñu jël ñeenti jigéen musiba naaru laay la da ngeen war a encourager euh, euh, la politique pour l'autonomisation des femmes leadership féminin da ngeen war a encourager le leadership féminin Euh, foo leen ji góor ñii ngeen jël kenn naatablewul li nga xam ne moom mooy seen compétence kenn naatablewul seen xarañ boo leen duggee ci réew mi di ngeen fa fekk juróom ñaar fukkeelu ay jigéen yoo xam ne tey mën nañu yor ndombal tànk yi doxal ko doxal réew mi sur ce point la Macky Sall aura fait pour vous que vous sous le magistère de Macky Sall on a eu une deux femmes euh, d'institution mm -hmm. ak Aminata Euh, Mbengue Ndiaye euh, Aminata Mbengue Ndiaye mhm. on a eu une femme chef du gouvernement on a eu pour la première fois une femme ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur muy Aïssata Tall Sall ngalawaay sénégalais yi dañoo jël euh, lépp jox leen ngalawaay bu leen décevoir ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne amoon nañu yaakaar ci yéen ngalawaay euh, sargal leen jigéen ñi mettez les femmes au centre au cœur des politiques publiques et qui mieux que femmes euh, peuvent comprendre les urgences de l'heure Euh, yi nga xam ne ñoom ñoo yitteel la gente féminine là vraiment lii c'est une vraie déception man je suis choquée par ce nombre là dafa mel ni affaire étrangère tamit jigéen moo ko yoraat Yacine Fall euh, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères jigéen moo ko yoraat et les premières ils ils ont fait la même chose Aïssata Tall Sall elle était au premier rang protocolaire mhm. euh, c'est très bien mais le nombre il est insuffisant mhm. et c'est choquant mhm. Et c'est choquant. Man, je vraiment choquée. Quand on voit que le projet a été vraiment porté par, voilà. par beaucoup de femmes. Mais Memouna, là, vous avez vu juste aussi, c'est avec la nomination de Moustapha Guirassi. Moustapha Guirassi, un homme du Serail, dans un département qu'il maîtrise mhm. bien. maa ngi la ko doon wax sànq. du ma bett euh, ñu indiwaat euh, un Moustapha Guirassi qui a une expérience politique euh, connue mm -hmm. et, et reconnue euh, Moustapha Guirassi euh, Euh, oui. c'est une réussite mhm. euh, dans le domaine euh, de l'enseignement. C'est une école euh, mondialement mhm. reconnue. Euh, Moustapha Guirassy on se rappelle hein, des premières années oui. aujourd'hui IAM mën nañ ne dafa coloniser euh, tout le quartier tout le quartier Mermoz euh, tout beaucoup de cadres aujourd'hui yu nekk dans le secteur public parapublic dans le secteur privé mm-hmm. euh, ñu ci bari euh, IAM la ñu génne mm-hmm. euh, j'ai même vu des hauts cadres delluwaat IAM mm-hmm. ngir renforcer li nga xam ne moom mooy seeni seeni capacité donc Moustapha Guirassy à ce poste là nul doute qu'on aura des résultats euh, vraiment impressionnants. Mmh. Alors, je vais me permettre de rappeler les ministères euh, attribués aux, femmes. Euh, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, le ministre c'est Yassine Fall, il ministre des pêches. Et des infrastructures maritimes, si je ne me trompe pas, Germaine. ministre des pêches. Maïmouna Dièye au ministre de la des infrastructures maritimes et portuaires il y a Khady Dièye Guèye comme ministre de la jeunesse ministre de la mhm. jeunesse sport et cultures et culture. ak ah, culture. bon euh, moom nag c'est un profil que yoo xamante ne. boole nañ ko euh, jeunesse sport ak ak culture dañ doon wax dañuy cumuler euh, jeunesse ak sport ñëw boole ci culture nan nga jàngatee. jeunesse sport ce sont deux postes qui peuvent aller ensemble. Euh, mais culture encore une fois la culture est le parent pauvre euh, culture euh, gars yi acteurs culturels yi xeexoon nañu ba ñu consacré ko ko un ministère entier ministre de la culture et du patrimoine voilà et du patrimoine historique classé mm. au ministre du tourisme et de la culture mais sport jeunesse sport culture ça fait beaucoup c'est un gros département qu'on a euh, qu'on a donné à Khady Dièye euh, on ne manquera pas euh, de vous faire part de son parcours de son profil en tout cas elle hérite d'un ministère très important et c'est la première fois mhm. euh, que jigéen yor li nga xam ne euh, moom mooy le département euh, des sports loolu aussi c'est une c'est une c'est une première et puis il y a une autre fusion aussi les affaires étrangères et l'intégration africaine voilà boo demee boo xoolee presque benn la. mën na ànd euh, voilà mën na ànd. Hmm. même mënoon nañu boole sax intégration africaine affaires étrangères sénégalais de l'extérieur. Hmm. Hmm. mais vu euh, poids bi ñu bëgg a jox euh, seen politique en direction de la diaspora. et des sénégalais de l'extérieur. au niveau africain aussi au niveau nañu comprendre mais c'est une très c'est très bonne fusion en tout cas man. Je suis très fière euh, quand on met en avant les femmes. Alors mm -hmm. félicitations vraiment à ces quatre femmes, mhm. muy mm -hmm. Yacine Fall, Yacine Fall qui marche sur les pas de Aïssata Tall euh, de mhm. mais avec une autre configuration de son mhm. de son ministère Yacine Fall qui est une fonctionnaire inter euh, internationale une très grande proche d'ailleurs de Bassirou euh, Diomaye euh, Faye Euh, souvent su ma soxlawaan euh, kenn Pastef elle me parle il me parlait beaucoup de de de, de Yacine Fall euh, félicitations aussi moi suis très contente pour ma Thomas Maïmouna Dièye Maïmouna Dièye voilà en première ligne en première ligne voilà elle a toute la légitimité pour oui, conduire ce département en première ligne du du combat elle a fait la prison mm-hmm. elle a payé le prix fort mhm. euh, pour euh, pour la cause de de Pastef euh, félicitations également une autre femme donc à part Maïmouna Dièye euh, Yacine Fall Khady Dièye Euh, Fatou Fatou Diouf Fatou Diouf ministre des pêches voilà ministre des pêches des infrastructures maritimes et portuaires des infrastructures maritimes et portuaires euh, donc voilà la on reste dans la ligne euh, dans l'ancienne ligne pêche infrastructure maritime mm. et et bon bu njëkk ba économie la woon mm-hmm. économie maritime léegi nag dañ ko def infrastructure maritime et portuaire mm. loolu dafay wane li ko d'abord la pêche ce sont trois secteurs yoo xam ne yu am importance ci économie mhm. la pêche l'économie les infrastructures maritimes et portuaires Sénégal fii ak 2027 dina retrouver wu avec trois ports mm -hmm. trois ports euh, avec le port de Dakar qui va davantage être modernisé le projet de port de Ndayane mm -hmm. va être livré si les délais sont respectés en 2026 et non en 2027 le port de Bargny Sendou gis ngeen naroon nañu def sax Euh, li nga xam ne fête sax l'arrivée du premier navire mhm. euh, mu coïncider avec le report de l'élection présidentielle ak les tensions politiques loolu moo tax ñu ko def c'est c'est un gigantesque mhm. gigantesque port en eau profonde euh, boo xam ne nag dina accueillir les plus grands navires de ce de ce mhm. de ce monde mu nekk dans le secteur du minéralier et du vraquier Euh, gis ngeen tamit port de Dakar tout le travail qui est en train d'être fait là-bas euh, comment le port est en train de se redynam de, de, de se mm-hmm. redynamiser et de se replacer en et, de replacer le le le, le Sénégal c'est quand même aussi voilà ñu loolu aussi c'est une première euh, ñu je pense que Aminata Mbengue Ndiaye on va vérifier mais Aminata Mbengue Ndiaye mas na nekk ministre ah. de la de la de la pêche c'est pas une première je pense on va on va vérifier ñu teg fa jigéen voilà ce n'est pas euh, c'est une première en tout cas bu bu amee mhm. mais euh, ñoom am na benn gëdd bu ñu jox euh, le secteur de la pêche le secteur de la pêche pour qui contribue pour plus de 7 pour cent dans le euh, PIB du Sénégal mhm. ñu jox ko euh, ñu jox ko wàll bu am solo on retrouve aussi un ancien candidat à la présidentielle hein, Cheikh Tidiane Dièye On s'attendait à le retrouver aussi aux côtés de Habib Sy parce que même ils ont eu un peu le même destin en cette fin d'élection. Ils se sont retirés au dernier moment en donnant euh, leur voix et même leur temps d'antenne au candidat Bassirou Diomaye Faye. Une surprise ou pas, Cheikh Tidiane Dièye, qui je rappelle a été nommé ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Alors, pas une surprise. Cheikh Tidiane Dièye, il a le profil de l'emploi. Euh, c'est un homme très respecté au, au, au Sénégal. euh, il a le profil de l'emploi euh, yàgg na dans la dans la gestion des des, des ONG euh, yàgg na di évoluer dans les structures inter euh, internationales c'est un homme qui saura tout de suite quoi faire il ne sera pas en, en apprentissage et puis voilà c'est très légitime que ñu delloo ko njukkal parce que li mu def mën nañu ko xoolee moom dafa ne am na wax bu am solo bu mu wax à quelque jours de la fin de la campagne euh, quand il a annoncé que euh, moom euh, temps de parole am ak mhm. lépp da koy jox euh, ki nga xam ne euh, moom mooy Bassirou Diomaye quand il a annoncé son retrait ñu ne ko mënul retirer wu à ce stade de la mhm. du processus ñenn ñi naan kaan bu demee du am trois voix nee na bu amee trois voix sax trois voix yooyu nañ ko jël yàqal ko <laughs> Diomaye ce qui importe pour lui c'est pas ça ce qui importe c'est la réussite du du du projet euh, boo déggee Cheikh Tidiane Dieye wax loolu nag doo am mbetteel bu fekkee ne xam nga nit ki tuuti. Mm-hmm. Euh, c'est un homme de devoir c'est un homme qui sait euh, se sacrifier pour une cause commune on l'a vu au premier plan du combat en 2012 euh, contre le troisième mandat. Euh, mayoon na euh, nguuru Macky Sall un délai de décence mais bi mu gisee mbir yi commencé. di am nu muy demee euh, il est encore euh, sorti euh, de son mutisme pour se repositionner euh, politiquement jusqu'à cette candidature mm-hmm. alors le retrait de son de sa candidature nag ça a beaucoup fait jaser mm-hmm. euh, mais nag quand on connaît l'homme euh, du la du la du la jaaxal donc qu'il soit présent et d'ailleurs ça ne surprend personne qu'il soit présent dans cette euh, dans cette liste mm-hmm. euh, ne me surprend guère et moom mun nañu am ci moom euh, beaucoup d'a priori euh, favorables man j'ai eu à travailler avec lui ci ONG bi mu bi mu bi mu bi mu nekkoon donc il est souvent dans les causes sociales dans les causes économiques monétaires nit la koo xam ne njàngam parcours am euh, gis-gisam may na ko euh, tey euh, mënoon na sax nekk tey place Bassirou Diomaye Faye mais njàngam parcours am gis na ko may na ko tey mu nekk foofu mu mu nekk donc Cheikh Tidiane Dièye qui a le profil de l'emploi mm-hmm. et et et malgré euh, euh, l'annulation de sa candidature il avait eu plus de quinze mille voix. oui voilà. quand même quinze mille voix c'est c'est c'est dire xam nga. Euh, élan bi porté Pastef au pouvoir man doon ma doon mbett bu doon Bassirou Diomaye fay euh, validé validé wuñu candidature am mhm. bu ñu tegoon Cheikh Tidiane Dièye mu produire le même résultat Euh, loolu doonul doon doonul doon dem mhm. bette Cheikh Tidiane Dièye ku ñu ràññee la ci li nga xam ne moom mooy société civile bi et je me rappelle à l'époque bi ñuy mettre en place leur mouvement politique avenir Sénégal bi ñu bëgg moom ak moom Adama Gueye ak ñeneen ñi euh, amoon nañu ci yaakaar bu bare bare xam nga dafay neex toujours dans un pays nga gis les gens des gens qui ont le profil de l'emploi mhm. ñu nekk à la place qu'il faut amoon nañu ci yaakaar bu bari même si politiquement euh, ça n'a pas produit grand chose mais seen taxawaay lu am solo la woon Après, euh, lors des législatives, il aurait pu être député. Euh, il n'a finalement pas pu Euh, il n'a pas été investi ñenn ñi jàppoon sax dina jur frustration mhm. découragement il était le directeur de cabinet de Ousmane Sonko à à, à la mairie de Ziguinchor mais gis nga ko dafa continuer mhm. euh, war naa su loolu yëpp euh, am la même détermination il est euh, voilà il est resté constant et et, et c'est un euh, et c'est quelqu'un qui est très proche de de Sonko et qui partage avec lui presque la même vision et donc gis nga ko malgré ces turpitudes de la politique mhm. a continué il a eu un engagement en gis des gens man j'aime bien euh, des Sénégalais qui le mérite. Mhm. Euh, ñu euh, seen mérite. c'est important alors juste rappeler Maïmouna que euh, Aminata Mbengue Ndiaye a été ministre des pêches de l'économie maritime. Ah, en 2019. oui 7 avril 2019 voilà. au 3 novembre voilà. 2019. Voilà. donc c'est c'est c'est ministère qui change pense que c'était pas c'était c'était pas une première mais nag euh, formulation ak configuration ministère bi mhm. euh, dafa gën a gën a jox ministère bi gëdd mhm. Sénégal dafa bëgg a positionné wu comme comme le premier hub portuaire euh, de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui mhm. on a tous les outils avec la mise en œuvre de la politique nationale portuaire euh, pour mettre en œuvre ce portuaire là te hub bi mu ngi jël format aujourd'hui tu as Dakar qui est une plateforme euh, très vigoureuse qui est en train de de de de, de surclasser euh, la plateforme euh, ivoirienne on a Dakar qui se qui se positionne en Afrique de l'Ouest comme le premier comme l'un des ports les plus modernes on a Ndayane les travaux ont démarré mm-hmm. et les travaux euh, progresse à vitesse euh, à vitesse grand V et puis on a le port de Bargny Sendou euh, bi nga xam ne exploitation bi dina démarrer bientôt. Euh, Germaine. alors il y a le poste stratégique. Euh, du ministère de l'Intérieur. Mmh. Jean-Baptiste Tine. Alors, Jean-Baptiste Tine, on se... ministère de l'Intérieur d'abord, il a le profil de l'emploi. Il fut haut commandant de la gendarmerie nationale, euh, remplacé euh, par, euh, par euh, le général euh, Moussa Fall. Euh, Jean-Baptiste nag à l'époque son limogeage avait beaucoup fait jaser moom moo nekkoon haut commandant de la gendarmerie lors des événements de 2021 mhm. qui ont failli faire tanguer l'état du du du Sénégal alors il était à quelques mois de la retraite Euh, ñu bari à l'époque y même eu des hauts gradés mhm. ak des gens yoo xam ne moom moo leen formé ñu ne woon euh, dañ ko buggoon a humilier parce que loolu c'était une première c'était du jamais vu mhm. euh, waroon nañu ko bàyyi mu dem à la retraite mais je me rappelle boobu président mu ngi nekkoon en tournée dans le Matam Euh, bi ñu annoncé le limogeage de Jean-Baptiste de Jean-Baptiste mhm. voilà dans les dédales du pouvoir ñu ko doon reprocher une mauvaise gestion des des des des événements. Mm qui ont un peu fait tanguer le régime de de, de Macky Sall euh, donc ñu limogé ko donc il signe un retour en force mm. en tant que en tant que ministre de l'Intérieur euh, rappelez-vous aussi lors de ces événements euh, moom Jean-Baptiste Tine qui def souvent évoqué na souvent ses relations avec Jean-Baptiste le capitaine euh, le capitaine euh, Touré. Mhm. Euh, donc mu am beaucoup de soubresauts qui ont entouré. son limogeage son départ au niveau. de la gendarmerie euh, aujourd'hui il signe un, un, un, un retour en un retour en, en, en force voilà dans les prochains jours dans un poste très très très stratégique Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa régime de l'époque doon ko condamné mhm. euh, pour sa gestion de ces événements mais boo daan déglu souvent au sein de la gendarmerie euh, beaucoup de gens dañ doon wane benn sympathie benn empathie pour le général Jean-Baptiste Tine di louer ses ses ses qualités d'homme mhm. di louer ses qualités de gradé ses qualités de militaire de serviteur de de l'État du Sénégal en tout cas c'est l'avenir qui jugera mhm. est-ce qu'il a mal géré ces événements vraiment euh, est-ce que comme parfois ni ñu ko doon chuchoter voilà il n'a pas pris les bonnes décisions euh, est-ce que est-ce que est-ce que mm-hmm. est-ce que mm -hmm. voilà il y a beaucoup de questions qui peuvent accompagner euh, l'arrivée de Jean Baptistine. Et mais, le choix de voilà, et qui peuvent aussi justifier le choix euh, de porter sur Jean Baptistine. Je pense que dans les jours à venir, euh, voilà, on va, les gens vont revenir euh, sur certaines tranches d'histoire. Mm -hmm. voilà, euh, pour ça, ils ont accompagné son départ euh, de, de, de, la gendarmerie euh, nationale, mais c'est un homme qui a le, qui a le profil de l'emploi. Mm -hmm. Au ministère de l'Intérieur, Mouna Dal Parce que Sénégal, dernièrement, dañoo dañoo confronté wu à des problèmes euh, à des problèmes sécuritaires mhm. euh, un gendarme un ancien haut commandant de la gendarmerie euh, un général à la tête du ministère de l'intérieur mhm. euh, ça ça rassure et ça fait tomber les spéculations euh, selon lesquelles Moussa le Makhtar Cissé mhm. allait être maintenu Makhtar Cissé qui a récolté beaucoup de félicitations pour cette formidable euh, élection qui a abouti à la à la troisième Euh, à la troisième alternance de de notre pays. ça fait pas peur également. pourquoi ça devrait avoir peur man avoir un homme man nag xam man avoir un homme de tenue à l'intérieur à la justice. Euh, euh, aux forces armées bon ñoom ñoo fay ñoom ñoo fay nekk moi ça ne me fait pas peur pour man c'est rassurant et c'est une bonne option sur la sécurité du pays euh, sur la protection des personnes et des biens c'est un homme aussi qui n'aura pas à apprendre qui ne sera pas en apprentissage euh, nit la koo xam ne bu ñëwee euh, xam na les questions de sécurité voilà xam na les questions de sécurité intérieure xam na la protection du, du, du territoire national xam na les questions sécuritaires transfrontalières euh, nit la koo xam ne il a le profil de remploi ça ne fait pas peur pour man ça peut rassurer Euh, mais il y aura beaucoup de questionnements qui vont accompagner euh, son son son retour. Mm. Euh, son retour en en en force. Mm -hmm. mais moo il faut s'en féliciter. Bah, des, des questionnements bien sûr sur lesquels on, on reviendra en tout cas euh, tout au long de nos éditions spéciales et bien sûr dans nos éditions. Là on s'arrête sur les noms qu'on a l'habitude de de d'entendre euh, des noms qu'on connaît mais bien sûr on vous proposera le profil en tout cas de tout ce nouveau gouvernement mais benn tour boo xamante ne mënuñ ci bañ a taxaw muy El Hadji Abdourahmane Diouf quelqu'un qu'on a eu l'habitude de recevoir ici à la 7TV quelqu'un qui est aussi issu de la diaspora qui a fait un, un, un long parcours en France. Il l'a il l'a souvent dit sur les plateaux, qui est nommé aujourd'hui euh, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, euh, Abdourahmane Diouf, le, le candidat de Adjastou, comme j'aime bien dire, <laughs> qui a souvent euh, loué sa bravoure, en tout cas aux côtés de récemment de la coalition Diomaye Président. Est-ce qu'on pouvait s'attendre aussi à, à, sa nomination dans ce gouvernement euh, Oui, Abdourahmane Diouf, il a le procès. Euh, et puis enseignement supérieur, euh, c'est un domaine que Abdourahmane Diouf connaît très bien. Il il a il a fondé une école. Mm une école de formation une école de formation professionnelle. il a toujours aimé les métiers d'enseignement. Mm -hmm. lui-même il donne des il même lui-même des cours euh, donc secteur la boo xam ne xam na ko bu baax a baax. Mhm. Euh, te Abdourahmane Diouf nit la koo xam ne amoon na yéene ci réew mi. Mhm. amoon na une vision bu mu bëggoon matérialiser malheureusement sénégalais yi topp topp ñu ko ci. Euh, c'est un candidat déchu euh, à l'élection euh, nu mu tudd c'est un candidat déchu euh, stoppé euh, en plein envol par le par le par le parrainage mhm. euh, moom nag mu ngi ci secteur boo xam ne xam na ko gis nga li ñuy daal daanaka daal ku ku ku ku bëgg a wax dëgg jël nañu nit yoo xam ne mën nañu am ci ñoom yaakaar léegi nag yaakaar mën na sokkeeku euh, yaakaar mën na sokkeeku te yàlla bu yaakaar tas c'est un secteur qu'il connaît très bien mm -hmm. et puis Abdourahmane Diouf aussi c'est un homme qui a de l'expérience politique mm euh, il a eu un compagnonnage très long avec Idrissa Seck après il a essayé de voler de ses propres ailes Euh, fondé li nga xam ne moom mooy Partem Awali euh, innover dans la démarche innover dans la façon de faire euh, dans la façon d'aborder les problématiques avec Aar Sénégal aux législatives foogoon nañu ne dinañu def du bon résultat amoon nañu ci yaakaar malheureusement ils ont récolté un seul poste et la coalition a implosé tout juste après les législatives problème de tempérament mhm. entre lui et Thierno Alassane Sall mu nekk un épisode boo xam ne il n'aime pas qu'on le lui rappel. Mm-hmm. <laughs> bëggul ñu ko koy rappeler. Mm-hmm. bëggul di ci di ci wax. alors après Aar Sénégal mu concentré sur sa candidature. Oui. il était sûr de son coup. il a été stoppé par le parrainage ñu teg seen euh, seen kii boobu. Euh, seen euh, seen collectif boobu voilà les les candidats voilà les candidats spoliés voilà affaire bi damul ci la am la sagesse et puis retrouver la raison de rejoindre la coalition euh, Diomaye euh, président te gis nga bi muy rejoindre la coalition Diomaye président il était fortement courtisé mhm. par deux autres grandes coalitions mm -hmm. il était courtisé euh, par la coalition Karim président mm -hmm. euh, ce n'est pas un secret je peux le dire mhm. il était courtisé par la coalition Benno Bokk Yaakaar e Benno Bokk Yaakaar moom ak dafa am ak ñoom une expérience brève et très douloureuse ah. dañ ko nommé directeur général bu sen SONES mhm. mu bokkoon ci quota Idrissa Seck vous vous rappelez ah. euh, le com Benno dans le cadre de Benno Bokk mhm. Yaakaar Euh, Idrissa Seck ak Macky Sall am divergence il en a subi les conséquences huit mois la def à la SONES ñu dax ko et ki ko dàq moo doon Omar Gueye mi nga xam ne moo nekkoon son collègue de son son camarade de parti. parce que Omar Gueye et et Pape Diouf ont décidé euh, de rejoindre de rester avec Macky Sall et de quitter Idrissa Seck. Mm-hmm. moom Abdourahmane Diouf il a refusé euh, de faire comme comme comme ses deux camarades donc ñu dàq ko. voilà mu nekk une expérience douloureuse. Mm-hmm. Euh, mu jóge foofu ne dafa bàyyi politique lancé wu euh, ci li nga xam ne moom mooy CIS avec Babacar Ngom ñu dékkoon ko la direction exécutive boobu aussi c'est une expérience qui a tourné court euh, très court et donc dans chaque étape ci yooyu muy SONES Euh, muy CIS muy réew mi euh, à chaque fois muy euh, lu législative mhm. muy présidentielle il n'a jamais pu mettre en œuvre sa vision il n'a jamais pu appliquer ce qu'il a appris ou bien les sujets qui le qui le passionnent mhm. muy le développement économique muy les questions d'enseignement muy les questions de monnaie aujourd'hui on lui offre une occasion en or mhm. de mettre en pratique toute cette énergie, toute cette, euh, toute cette vision. Et donc, pas, ce n'est pas, ce n'est pas surprenant. Vous faites que c'est un gouvernement en quête de bons profils. Euh, Abdurrahman Diouf est, est, un excellent profil. Et ce je ne le dis pas, hein, c'est, très objectif. Mm -hmm. Il y a également un autre homme de loi euh, qui euh, fait partie de ce gouvernement, le général euh, Biram Diop, ministre des Forces armées. Waouh, Biram Diop, ministre des Forces armées. Euh, moom euh, moom ak Jean-Baptiste Tine yëpp bi événement 2021 yi di am ñoom ñoo nekkoon aux commande des armées Biram Diop euh, en tant que SEMGA euh, chef d'état-major général des armées et Jean-Baptiste en tant que euh, haut commandant de la de la gendarmerie euh, contrairement à à à Biram à Jean-Baptiste Tine Biram Diop moom il est allé à la à la, à la retraite et il comme il y a une particularité avec euh, avec Biram Diop bon yàggu fa yàggu fa trop euh, il n'a il n'aura pas fait un un, un, un long séjour euh, ba ñu remplacer ko euh, bon moom mu ngi quitté d'ailleurs en 2021 donc alors je suis en train de regarder mu ngi quitté en deux mille euh, mu ngi quitté en deux mille vingt et après dafa rejoindre woon euh, l'organisation des des des Nations Unies nekkoon fa conseiller militaire euh, il a il a d'ailleurs ñu ngi ko nommé le vingt cinq mai deux mille vingt et un moom mu nekk conseiller militaire euh, du département des opérations de mhm. paix au niveau euh, de l'ONU gannaaw ba mu quitté li nga xam ne moom mooy les forces armées il n'a pas été limogé. Mhm. Euh, il a il est allé à la à la retraite mais moom ak Jean Baptiste Tine ñoo nekkoon au aux commandes et donc Birame Diop aussi dans le secteur de la de la justice c'est ça. Mm-hmm. Euh, ah, ministre des forces armées ah ministre des voilà donc euh, dañ ko dañ ko delloowaat ci këram. Mhm. Mhm. voilà aujourd'hui il a une fonction politique euh, en plus de ses responsabilités militaires qu'il a eu dans le temps mais biram Diop dañ ko yóbbuwaat ci këram. Mhm. et puis le c'est, la première fois je pense euh, si je ne me trompe c'est la première fois. Euh, en tout cas que ñu jël un jeune un un un SEMGA un ancien SEMGA nommé ko aux forces armées. souvent d'ailleurs ministère des forces armées dañ doon jël souvent ni ñu fa daan mëne voilà ñi ñi ñu fa daan mëne da daan poser problème mm-hmm. euh, du temps de Wade c'était Bekay Diop mm. la ñu fa daan euh, nommé mm-hmm. euh, sous Macky Sall on a eu euh, Omar Youn on a eu Sidiki Kaba on a eu Augustin euh, Augustin euh, disent que ministère bi c'est une planque boo fa demee c'est pas vous qui décidez mm -hmm. les choses se font entre le président de la République et les généraux yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo yor bien que ce soit un ministère de souveraineté mais on peut avoir une grosse révolution euh, avec Biram Diop mm-hmm. euh, avec Biram Diop lui il n'aura pas marqué euh, l'histoire politique des forces armées comme l'ont été les généraux Nogas euh, Babacar Gaye mm -hmm. euh, il n'aura pas été trop médiatisé comme le comme le comme l'est aujourd'hui mm -hmm. Mbaye Cissé c'était un homme discret mm -hmm. mais c'était un homme très apprécié par la par les par les par les troupes mais ñu yóbbu ko tey au niveau du ministère des forces armées il y a beaucoup de réformes et et puis l'armée pourra bénéficier de son expérience nga tamit euh, secteur la boo xam ne on nous dit souvent il faut pas en parler mais il y a lieu de réorganiser de revoir les on a on a on a Macky a beaucoup fait pour l'amélioration des conditions de travail mais il faudra aussi beaucoup faire pour l'amélioration des conditions de vie mm-hmm. de ces militaires de, de des forces armées c'est-à-dire amélioration des conditions de vie ce n'est pas normal et loolu wax ko ce n'est pas invité à la sédition mais ce n'est pas normal que benn cadre bu def bu am un bac plus cinq mm-hmm. euh, commencé liggéey au bout de cinq ans il se retrouve avec un salaire de un million huit cent mille mm-hmm. nga gis un militaire boo xam ne dafay def trente ans de service dafay def trente ans façon diplôme bu nekk mu am ko mhm. dem euh, risquer sa vie dans tous les théâtres d'opération mun a risquer sa vie mën a compromettre la vie et la tranquillité di compromettre sax la vie et la tranquillité de sa famille mhm. ah nga gis un colonel du weesu un million deux cent c'est une injustice c'est inacceptable te gis nga dafa jot dafa jot ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi ñu taxaw arrêté wu euh, sur la grille salariale des forces de défense et de sécurité xam nga un un un nu mu tudd un caporal di gagné deux cent vingt cinq mille. Mhm. là où un enseignant aujourd'hui mu ngi dem ci cinq cent mille. Euh, beaucoup de fonctions. beaucoup de corps de métier dans la fonction publique ñoom ñëpp dañoo gis ñu upgrade de manière euh, significative li nga xam ne euh, moom mooy seen seen i avantage seen i grille sal seen seen seen i grille salariale mm-hmm. mais euh, les forces armées les forces de défense et de sécurité bénéficié wu ñu ci ci ci élan boobu mm-hmm. bon y a une classe de d'officiers supérieurs yoo xam ne ñoom ñooy nekk à certains postes dinañu am avantage yu baax loolu sax dañ ko war a fulaat mais nag ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, nekk ci suuf ñooñu mérité nañu ñu yëkkatiwaat li nga xam ne moom mooy euh, seeni conditions de vie c'est vrai Ablaye Wade bi mu ñëwee doublé na li nga xam ne moom mooy euh, l'indemnité de logement mhm. ça a ñu fulaat li nga xam ne moom mooy les les salaires Macky Sall bi mu ñëwee am na lu mu ci def mais avec le général biram Diop et avec sa connaissance du terrain avec sa connaissance de réalité mën nañu am njort ne euh, enfin au Sénégal dinañu taxawaat bu baax xoolaat euh, li nga xam ne moom mooy le traitement salarial des forces de défense et de sécurité mais nag mais nag dire une chose ñoom du ñu grève mhm. du ñu kaas du ñu onk mhm. du ñu wax kuñ ci fay cent francs parce que nekk militaire nekk un serviteur de l'État vocation la pour certains. Mhm. buñ la am na si ñoo xam ne xam nañ lépp mënoon nañ dem nekk ay magistrats. Mhm. am nañu diplôme bi am nañu légitimité bi. Mhm. mënoon nañu euh, dem politique mais ils ont choisi le métier des armes par passion. par amour pour la patrie. Euh, loolu lii ñuy wax ni xëy na ñun ñoo koy wax euh, mais ñoom duñ ko wax. parce que ñoom jàpp nañu ne c'est déjà un honneur. de servir la la la patrie mais nag baax na tamit ñu xoolaat seeni conditions euh, xoolaat la la condition des militaires invalides. oui gis nga chaque fois ñu génn dans la rue. nekk di grève nekk di casse. récemment ñu ngi euh, doon euh, laajte seen prise en charge médicale. voilà am na ay affaires yu leen Macky Sall loon est-ce que matérialiser nañ ko à cent pour cent faudra faudra vérifier ça. Mhm. ñu xoolaat des des blessés de guerre. Mhm. da ngay gis ku nekk militaire dem engagé wu dem Casamance xam nga. feebar sa tànk dagg sa tànk dagg mënatoo parfois nga feebar mënatoo li nga li nga li nga mënoon c'est vrai que y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour leur prise en charge médicale pour leur suivi mais dañ ko war a yokkaat par mhm. exemple euh, koo xam ne blessé de guerre la pour man euh, pour nga am pension il faut que nga def yenn euh, il faut que pour que nga am une pension complète il faut nga def plus de vingt cinq ans de présence dans les métiers des des, parfois nga def am yenn problème yi quatre-vingt mille pour des gens qui ont versé leur sang qui ont servi la République c'est inacceptable gis nga bi ñu jëlee xale joolaay def leen pupille de la nation mhm. euh, am na ñoom tamit mérité nañu tey ñu voté leen benn statut mhm. statut boo xam ne day dañuy doon des serviteurs de la république boo xam ne l'état va leur être redevable jusqu'à la fin de la de leur vie et l'état va montrer cette même redevabilité euh, vis-à-vis euh, de la famille euh, de ces de ces militaires gendarmes sapeurs pompiers toutes les forces de défense et de sécurité yi nga xam ne euh, pendant que nous nous dormons pendant que nous nous sommes avec euh, nu mu tudd dans nos maisons dans le cocon familial ñoom ñu ngi sacrifier seen seen seen seen seen vie di joxe li nga xam moom mooy seen deret euh, pour cette nation sénégalaise te gis nga Sénégal jafe-jafe yu mu jànkonteel diggante deux mille vingt et ak tey mm-hmm. réew yu bari yu jànkonte jafe-jafe yooyu mm-hmm. réew yooyu dañoo nërmeelu mm-hmm. bu ci Sénégal génnee c'est parce qu'on a un état fort mais aussi on a on a des forces armées républicaines euh, bien formées attachées aux valeurs de la République on a en, leur sein de grands serviteurs de de mhm. de l'État amuñu seen fay et donc man yaakaar boobu laa am sur la venue du général euh, Birame Diop xam na situation bi mhm. j'espère qu'il pourra contribuer et que euh, il, il il il il sera reconnu comme tel euh, comme le ministre des Forces armées qui aura le mieux fait qui aura beaucoup fait euh, pour les FDS même si nag du temps de Macky Sall en termes d'équipement en termes d'amélioration des conditions de travail. Des choses ont été faites. Beaucoup de choses ont, ont, ont, ont été faites. Aujourd'hui, nos armées amuñu lenn lu ñuy ñee aucune armée de la sous-région. Mm Équipement Alors à l'époque les hommes politiques di def populisme di verser dans le populisme naan Macky Sall dafay armer armée bi contre sa population. C'est faux. On s'arme pour faire face aux défis sécuritaires mhm. parce que tey le défi sécuritaire il est interne. mais il est surtout externe. Mhm. nous sommes entourés par une ceinture de feu des pays yoo xam ne. il y a des jeunes au pouvoir le mhm. terrorisme dans le dans le dans le Sahel mhm. dans le Sahel Euh, le Sénégal mu nekk un îlot de paix mu nekk un îlot de stabilité euh, d'abord pour sa démocratie mm-hmm. mais on doit cette stabilité aussi aux forces de défense et de sécurité donc le défi sécuritaire il est externe et donc il fallait faire face en tout cas des des, des propos euh, qui ont tout leur sens surtout en ce lendemain de la fête de l'indépendance que nous avons célébrée euh, hier donc vraiment am na solo torop torop et di fàttali ni Birame Diop qui a été nommé au ministère des Forces armées est également conseiller militaire au département des opérations de la paix. Autre nomination dans ce nouveau gouvernement d'Ousmane Sonko et du président euh, Bassirou Diomaye Faye, une euh, tête, un nom qui nous est euh, commun, qu'on a l'habitude de voir, qu'on a eu l'habitude en tout cas euh, d'entendre, qui a été euh, en première ligne dans le combat du projet et du PASTEF, El Malik Ndiaye. Beaucoup l'attendaient euh, au ministère de la Communication ou peut-être infrastructures et des transports terrestres et El Malick Ndiaye a jox lan nga ci xalaat. El Malick Ndiaye qui va remplacer euh, Mansour euh, sauf que le département euh, dañu ko reconfigurer. Mm -hmm. c'est la c'est d'ailleurs le on, on en revient euh, à la à, à l'ancienne reconfiguration. Mm -hmm. c'était transport transport terrestre et transport aérien. Mm sous Macky on a divisé le département. Euh, bi ñu surtout bi ñu amee euh, volonté taxawal pavillon euh, le pavillon le pavillon Sénégal mhm. et puis transport aérien aussi kii la secteur bu important la Sénégal mu équipé wu nañu relancé nañu Air Sénégal malgré les difficultés le pavillon Sénégal bon an mal Euh, mu ngi jéem a imposer wu en Afrique de l'Ouest dans la sous-région mhm. et même hors du du du, du continent africain euh, donc El Malick Ndiaye qu'on attendait au, à la communication bu ñu ko yóbbu communication <laughs> euh, du bett kenn mais qui hérite d'un puissant département est-ce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut euh, bon xam nga El Malick du procès de lui Euh, bon euh, en tout cas le départe département bi mu hérité c'est un lourd département euh, maintenant on ne peut présager de rien. Mhm. Euh, bu ñu ko tegee foofu El Malick Ndiaye c'est le euh, y a une différence entre le technicien l'expert El El Malick Ndiaye qui travaille à à à GCO. oui voilà à GCO. Mm donc ñun tàmmuñu trop profil profil académique am. Mm -hmm. profil politique am lañ gën a tàmm en tant que communicant donc ñu ko doon xaar fi nga xam ne. moom mooy au niveau du ministère de la communication bu ñu ko yóbboon communication euh, économie numérique et mhm. tout ça c'est son domaine euh, voilà mais porte-parole du gouvernement même porte-parole du gouvernement euh, il aurait pu mais il hérite en tout cas d'un gros ministère et puis ñu koy ñaanal bon vent El mhm. Malick Ndiaye sama sama xuloowaale <laughs> ñu koy ñaanal koy ñaanal bon vent en tout cas c'est un gros ministère dont il dont il hérite tra infrastructure Euh, bon maintenant mun nañu jàpp ne na tamit xëy na gouvernement bi ñu teg euh, xëy na ñoom mun nañu bañ a jël les infrastructures mettre ko au cœur. mën mm-hmm. nañu bañ a def ko Macky Sall euh, jël une partie du budget la moitié du budget injecté ko euh, dans le secteur le un quart du budget pardon injecté ko dans le secteur des, des infrastructures parce que en termes d'infrastructure moom euh, ce sera difficile. d'égaler euh, le record de de de, de Macky Sall euh, dañ doon wax ne ce sera difficile d'égaler euh, comme pour Macky Sall d'égaler le record d'Abdoulaye Wade Macky Sall a relevé le défi mm-hmm. Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye aussi ils peuvent relever ce défi là mais je pense que priorité bi actuellement du nekk les infrastructures surtout dans les zones urbaines mm-hmm. voilà Macky Sall def na terre mm-hmm. le TER euh, dañ ko doon critiquer mm. déggatoo sénégalais bu ko critiquer <laughs> euh, le TER voilà le TER euh, aujourd'hui les populations de la banlieue plus de cent cinquante mille personnes yu koy jël quotidiennement mm-hmm. ñoom jaaraama la ñu wax mm-hmm. d'ailleurs les hommes politiques ñu bari liñ doon critiquer mooy la cherté la cherté bi mais léegi loolu sax déggatoo ci déggatoo ci wax c'est un projet Euh, bu important mhm. du magistère de Macky Sall euh, Macky Sall indi na BRT le BRT bu commencé aussi dina gën a désengorger imaginez Sénégal Dakar bu amul woon BRT amul woon TER euh, ak embouteillage yi fan la ñu fan la ñu jëm mhm. dans les routes li mu def ci kilomètres de route amul benn régime politique bu ko ci bu ko ci def mhm. donc jàpp ma ne dinañ jël Euh, infrastructure surtout routière mhm. euh, def ko une grosse priorité Continue euh, mais en termes de mobilité voilà d'excellentes choses ont été faites mais mën nañu prioriser le secteur aérien réorganiser ko xoolaat ko càmbar ko et puis jéem a relever le défi du hub aérien au moins en Afrique de l'Ouest ñu mm -hmm. imposer wu déjà mhm. euh, Air Sénégal aussi gis nañu avec le nouveau le, le, le bon il n'est plus nouveau Euh, xaw na faa yàgg. léegi mu mhm. def deux ans avec Alioune Badara Fall aussi. Mhm. Euh, voilà il y a du bon boulot qui est. qui fait peut-être ça tombe l'aéroport. Euh, voilà. Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor voilà a aérien et puis surtout en matière de transport aérien euh, aujourd'hui toutes les capitales euh, régionales disposent de, de d'aéroports secondaires euh, de, de de de de premier niveau. Mhm. foofu tamit ci secteur boobu. Euh, lu bari lu bari bari def nañu ko xëy na ñoom bu ñu ñëwee euh, dinañu jéem a renforcer gën a capitaliser mhm. euh, les les les investissements qui ont été faits pour le pour le hub aérien en tout cas El lig Ndiaye a du boulot et on lui souhaite bonne chance may madame man damay ñëwaat tuuti ci kaaw général Moussa Fall ah lan nga lan nga xalaat ci ay mbiram parce que moom tamit euh, am na fu ñu ko yaakaaree woon te euh, yàgg nañ ko joxoñ euh, ci surtout manifestation yi nga xamante ne moo amoon diggante 2021 ak 2023 alors général général Moussa Fall dafa jël le commandement de la gendarmerie ci période bu critique Euh, comme ni ma la ko waxee moom moo remplacé Jean Baptiste Tine euh, Sénégal nërmeelu ci insécurité Sénégal nërmeelu ci insurrection Sénégal nërmeelu ci ay kasak ay yooyu mu jël le commandement de la gendarmerie euh, ce que Moussa Fall a réussi c'est d'avoir rassurer les Sénégalais quant à leur sécurité et d'ailleurs boo xoolee Euh, léegi Moussa Fall dañ ko médiatiser euh, bari na ñoo xam ne à l'époque daan nañ daan critiquer son action euh, Moussa Fall est devenu une une mm. parce que dafa ñëw fekk la gendarmerie ci moment yu metti fekk réew mi en termes de sécurité ci situation bu metti Moussa Fall s'est battu pour équiper la gendarmerie Moussa Fall s'est battu pour augmenter le nombre de le nu mu tudd mm-hmm. le nombre d'hommes yi nga xam ne ñoom ñooy servir au niveau de la gendarmerie euh, ñëw jël la situation en main euh, rassurer ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi tey euh, bu ñu mënee dem vers une élection apaisée retrouver de la tranquillité dañuy jaajëfal bu ñuy jaajëfal parmi les hommes de tenue parmi les patrons des FDS yi ñuy jaajëfal Moussa Fall dafay nekk en tête de liste Euh, ce matin dama doon discuter avec un confrère Yoro Dia mu ne ma Moussa Fall c'est l'homme de la décennie et il a parfaitement raison euh, moo tax dama gis démb euh, Moussa bi muy def le salut militaire euh, à Bassirou Diomaye Faye voilà ça ça ça fait réagir mm -hmm. mais ça ne devrait pas faire réagir affaire bi du affaire u àq du affaire xawma ay yàlla ay adduna euh, dafa dafa dafa gudd tànk. contexte la ce que ces gens-là doivent comprendre c'est que Moussa Fall est un serviteur de la République. Mm c'est un serviteur de l'État et il sert l'État sans état d'âme Moussa a servi sous euh, Ablaye moom moo nekkoon section de recherche et bi muy nekk section de recherche aussi il était très euh, en tout cas son action a été reconnue et magnifiée Moussa Fall a servi sous euh, euh, nu mu tudd Macky Sall mm-hmm. sous Macky Sall ñu porté ko à la tête de cette gendarmerie là Moussa du Macky Sall lay servir c'est pas la personne de Macky Sall euh, Moussa c'est un serviteur de l'État du Sénégal et quand il est quand il est quand il doit s'acquitter de sa mission de servir il s'en acquitte sans état d'âme Moussa Fall gisul Macky Sall Moussa Fall l'état du Sénégal la gis Moussa la sécurité des personnes et des biens la gis Moussa Fall il a fait le salut euh, militaire à Macky Sall excite Macky Sall il le fera avec euh, toute la dignité et toute la fierté requise pour Bassirou Diomaye Faye c'est pas Bassirou Diomaye Faye le Moussa Fall di gis Moussa Fall il voit le président de la République chef suprême des armées loolu ku ko comprendre rek euh, da ngay da ngay da ngay réer euh, ñi koy sànni xeer di critiquer son action ay waaye nañu nañu ñaanal Moussa Fall heureusement qu'il y eu des hommes comme Moussa Fall heureusement qu'il y eu des serviteurs de l'État du Sénégal voilà heureusement parce que bu ñu amul woon aujourd'hui des hommes courageux comme Moussa Fall euh, ñu bu ñu amul woon des hommes courageux euh, dans les armées Mbaye Cissé bi mu ñëwee aussi ak même Cheikh Wade ak dans cette situation de confusion la les gens étaient rassurés par leur profil euh, par leur parcours euh, militaire et académique et par leur haut fait d'armes ñooñu tey bu ñu taxawul woon ñun tey Sénégal ñu fi nekk di naan euh, une troisième alternance mm-hmm. gis nga dans les autres pays les les les les les les hommes de tenue qui sont à cette station là sont des opportunistes bu réew mi jaxasoowee au lieu ñu acquitté wu de leur mission républicaine euh, de préservation de l'intégrité du territorial euh, de protection des personnes et des biens au lieu ñu acquitté wu de leur mission de servir l'État mais dañuy ñëw def un coup d'État. on le voit dans la sous-région. imaginez tey Sénégal te ay moment ñu ngi doon tiit. Mhm. Sénégal tey bu ñu waxoon coup d'État mais dina am portée boo xam ne képp kuy sénégalais di nga rus. parce que ñun bokk na ci li ñuy kañee c'est un pays où l'armée est républicaine c'est un pays qui contrairement à tous les pays d'Afrique n'a jamais connu de de de coup d'État donc Moussa Fall buy Moussa Fall c'est pas il ne il n'a pas géré la gendarmerie de Macky Sall Moussa Fall a commandé de main de maître la gendarmerie de l'État du Sénégal Moussa Fall a n'a pas servi Macky Moussa Fall a servi le président de la République chef suprême des armées Macky Sall. il a servi la République voilà il a servi la République pour man c'est un nom digne. gis nga kolibé yeeg wokkatu yeeg yooyu. amul njëriñ gisa nga Moussa Fall tout képp bépp sénégalais bu nekk nit. xam luy état xam importance su sécurité. de saay boo yeewoo foo dajeeg Moussa Fall da koy wan respect foo dajeeg Moussa Fall da nga koy exprimer sa sa fierte Et heureusement qu'il y a eu des hommes comme Moussa Fall à la tête de nos armées. Qu'il y a eu des hommes euh, qui, ont, qui se sont inspirés de Moussa Fall. Gis nga des gens comme Moussa Fall. Euh, c'est comme Babacar Gaye c'est mm -hmm. comme tant d'autres généraux euh, ou Semga qu'on a eu mm -hmm. des hommes euh, dañoo war a taxaw ci seen histoire pour que mu inspirer d'autres Sénégalais. Mm-hmm. pour que bu Sénégal tollee ci situation yu mel nii mu am des hommes comme Moussa Fall comme Mbaye Cissé euh, comme euh, comme le DGPN damay fàtte tour bi. Mm-hmm. Euh, le le DGPN le le patron de la police. Mm -hmm. waay euh, ah dina ma rey voilà comme le comme l'actuel DGPN nga <laughs> xam ne dañuy taxaw acquitté wu de leur mission républicaine. Oui. Et Moussa Fall a tout simplement servi l'État du Sénégal. Et quoi qu'on puisse dire, les images ont été belles quand même. continuera euh. à servir l'État du Sénégal. Euh, lenn rek moo mën a changer pour Moussa Fall c'est que euh, président bu bees bi ne ko parce que tamit euh, voilà confier le commandement de la gendarmerie c'est le c'est c'est c'est la c'est la discrétion mm du président de la République Moussa Fall lenn rek lañ mën a jël ci moom xëy ne ko nekkatuloo au commandant de la gendarmerie mais Moussa Fall il restera général il va continuer à porter ses galons mhm. il va continuer à servir fièrement l'état du Sénégal te Moussa Fall peut se fièrement dans ce pays-là il n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit c'est un homme fier c'est un homme qui a été courageux c'est un homme qui s'est acquitté de sa mission républicaine kenn amul loo wax Moussa Fall parce que Moussa Fall lan la gis c'est l'État qui est menacé quand l'État est menacé le le le le devoir et l'obligation euh, d'un homme comme Moussa Fall et de tant d'autres hommes mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk aujourd'hui dans la érage de la gendarmerie muy ñoom Abdou Mbengue ak ñoom ñooñu ñëpp xam la mooy seen devoir arrêter la menace contre l'État mm-hmm. bépp sénégalais bu constituer une menace pour l'État du Sénégal le devoir de gens comme Moussa Fall c'est de vous arrêter mm -hmm. parce que État ñun ñëpp suñu suñu suñu suñu suñu moomeel la. Mhm. tey l'état du Sénégal bu affaissé woon te tolloon nañu foo xam ne yabe avait une volonté d'affaisser les fondement de l'état du Sénégal et Moussa Fall a été là. ñun loolu la ñuy retenir on ñun pour ñun Moussa man Moussa Fall euh, du quelqu'un qui a outrepassé ses prérogatives dafa def liggéeyam ba tax tey ñu ñu toog fii di def émission nekk ci jàmm ba tax tey mu am une élection démocratique libre et transparente bu tax tey Bassirou Diomaye Faye ah nekk président de la république nekk président de la république jël Ousmane Sonko def ko premier ministre loolu yëpp bu amee c'est parce que Moussa Fall et compagnie ils ont joué leur rôle le DGPN Seydou Bokar Yàgg muy ces hommes là qui étaient là entre 2021 et 2 et 2024 qui ont permis à ce mm. pays là de retrouver sa stabilité sa sérénité et qui ont permis à l'État de rester debout et, rester, et à rester fort Moussa Fall on lui tire notre chapeau man de bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne te bari naa ci ay moroma ah. boo xoolee ni ñuy médiatiser les actions de Moussa Fall ñoo xam ne ils sont très fiers de cet homme là c'est un homme qui mérite qu'on lui rende hommage c'est un mérite c'est un homme qui mérite tous les honneurs il n'a pas à baisser la tête et il ne baissera pas la tête et puis waxu dof yooyu dañ ko war a bàyyi boo xamul état da ngay dem jàngi état boo amul xam-xam da dem jàngi Moussa Fall c'est un républicain suñu borom nag mooy fal te suñu mhm. borom moo ne woon Bassirou Diomaye Faye mooy jiite sa pays là les mhm. cinq prochaines années te bu soobee bu neexee Bassirou Diomaye fay Moussa Fall va continuer à lui donner le salut militaire gis nga mhm. bi mu jëlee nguur bi en 2000 euh, dafa am comme ci situation bi euh, Ablaye Wade a fait de multiples séjours en prison. Oui. Ablaye Wade a eu beaucoup de problèmes euh, judiciaires. Mm-hmm. Euh, bu élection jeexee ñu jël yóbbu. Mm-hmm. assassinat metre Babacar Sèye ñu jël yóbbu. Euh, contestation plus participer à des élections au Sénégal voilà contestation électorale amee ñu jël ñu jël yóbbu. lu nekk jiñ nañ ko fi léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon li nga xam ne moom mooy les corps d'armée là comme nii. Mm-hmm. bi ñu ñëwee dañ doon on s'attendait à ce que Ablaye Wade fasse des changements. parce que ñooñu. voilà ci seen parcours. Mhm. Euh, amoon nañu da daje nañoo ak Ablaye Wade teg nañ ko ci yoon. Euh, tëjlu nañu ko euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen Ablaye Wade laalu ci kenn. contre tout c'est ça c'est ça la grandeur d'un nom d'État parce que Ablaye Wade euh, c'est un c'est, c'est qui commet, qui connaît l'État même si n'a pas beaucoup servi mhm. euh, dans l'État yàgg na ci opposition am na expérience mhm. xam na ne Euh, dans l'intimité de sa conscience que ces hommes-là n'étaient pas là pour le viser lui personnellement Abdoulaye Wade mais pour l'État et ce sont ces hommes-là qui ont continué à servir ñenn ñi euh, ba ñu dem retraite ñu doog leen a changer ils sont là pour l'État et Macky Sall tey na na woo Moussa Fall fekk Moussa Fall nekk ci kanamu Bassirou Diomaye Faye du ko jot mhm. nekkatul patron am mhm. bu ko neexee sax du ko wuyu téléphone parce que Moussa Fall le chef de l'État du Sénégal lay servir. Mhm. Macky ak lu mu mënta def pour les pour les forces de gendarmerie nekkatul le chef de l'État du Sénégal. Mhm. c'est Bassirou Diomaye Faye et il va servir Bassirou Diomaye Faye avec la même ardeur avec le même courage avec la même détermination avec le même engagement si on lui en donne l'occasion bu ñu ko tamit euh, là où il va aller il va continuer à servir cette armée. Mhm. et bravo. à ce grand homme Moussa Fall. en tout cas c'est c'est tout leur mal <laughs> tout le mal qu'on peut leur souhaiter hein. et puis day day am solo aussi sénégalais yi tourner vers l'avenir c'est important de mettre cap sur euh, sur ce qui li nekk suñu kanam te pas li nekk suñu ginnaaw aussi mais vraiment kaddu yi am na solo c'est très important de faire ces ces éclairages un autre secteur euh, très important aussi Germaine et ça nous fait penser à notre collègue Ndeye Fatou Wade de la santé <laughs> la santé aussi il y a eu beaucoup alors, de alors Ibrahima Sy là Ibrahima Sy un nom qui ouais. en tout cas nous pour notre part nous est euh, ouais. inconnu ne peut pas en dire euh, grand-chose j'espère que c'est mon voisin des des mamelles <laughs> j'ai un voisin aux ah. mamelles. Euh, c'est possible <laughs> il était politiquement engagé. Euh, et puis c'est il est docteur en environnement et cetera bon monsieur Sy je souhaite vraiment que ce soit que ce soit vous euh, il s'appelle Ibrahima Sy mais sur Ibrahima Sy on n'a aucune information mais même bu ñu waxee santé même si on n'a pas encore d'information sur euh, Ibrahima Sy ça reste un secteur clé un secteur stratégique on ne peut pas parler de santé sans pour autant penser au Covid bi fi jàll waaye avec euh, sous en tout cas à l'époque avec euh, Abdoulaye Diouf Sarr il y a ouais. eu beaucoup de remous beaucoup de contestations Euh, beaucoup pensaient qu'il n'était pas l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait, a euh, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre en tout cas de ce Ibrahim aussi qu'on ne connaît pas encore à la tête de ce ministère ah, contrairement à ce que vous dites, Ablaye a été un excellent ministre de la, Santé. Qui a, a été euh, malheureusement par des choses... a la mort de ces bébés au niveau de Tivaouane. Euh, avec cette histoire de d'erreur médicale. Mm-hmm. C'était à Louga. je, je pense euh, voilà il voilà il a euh, mais Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr aura aura géré euh, la pandémie de la Covid-19 d'une main de maître et cela en collaboration avec une équipe médicale euh, composée d'hommes et de, Euh, très très très compétent. Mhm. Euh, Abdoulaye Diouf Sarr bokk na tamit ci ministre de la santé yoo xam ne am na ñu euh, am nañu jaar-jaar rafetlu nañu seen jaar-jaar. Mhm. Euh, maintenant euh, santé nag souvent euh, la face visible de l'iceberg rek la ñuy xool. Mhm. dans le domaine de la santé. ya y c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites. Oui. Il y a eu beaucoup de de de niveau euh, 3 qu'on a construit, qu'on a équipé. Mhm. Euh, mais le problème des hommes subsiste. Mhm. Le problème de la dette ospitalière euh, subsiste. Le problème de l'instabilité du front euh, social au niveau de la santé Euh, subsiste toujours euh, la disponibilité et l'accès aux soins aussi euh, ça pose problème. Mm-hmm. Les situations d'urgence euh, aujourd'hui Sénégal moom euh, war nañ yokkaat médecin yi mm-hmm. war nañ yokkaat euh, ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo composé le corps le corps médical ba tey Sénégal am na béréb yoo xam ne boo fa demee dañu doo am sage-femme bu war a mm-hmm. am na béréb yoo xam ne boo fa demee pour que ñu ñëw évacuer la da ngay fay trente cinq mille ambulances mm-hmm. am na ñoo xam ne sax ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette ambulance là ci ay charrette la ñuy teg nit ñi voilà mortalité di fa am mortalité infantile di fa am secteur la boo xam ne nag bu amee euh, secteur boo xam ne war nañu cee investir ak secteur yoo xam ne investir nañu ci waaye war nañu cee gën a taxaw mm-hmm. bu fekkee ne dañoo bëgg a impacter le capital humain santé mm-hmm. war na bénéficier d'une attention très très particulière c'est-à-dire am attention bi infrastructure amoon du temps de Macky Sall santé agriculture ak li nga xam ne moom mooy peche emploi formation. Euh, mais euh, may mën a am na ñoo xamante ne ñi ngi reprocher euh, le président Bassirou Diomaye Faye de ne pas n'avoir pas euh, évoqué euh, le, le le le secteur sanitaire dans son discours du 3 avril. bon peut-être que c'est une peut-être que c'est une omission ah euh, mais Bassirou Diomaye Faye mi jógee Ndiaga Euh, Ndiaga Niaw euh, je pense que ci euh, reportage bi Djibril def amuñu woon poste de santé mhm. Bassirou Diomaye fay mi jóge Ndiaga ñaaw jànkoonteel ak c'est-à-dire chance bi ñu am tey bon comme Macky Sall aussi ah mooy ne Bassirou Diomaye fay jóge na ci contrée boo xam ne elle est dépourvue de tout mhm. Bassirou Diomaye fay xam na njëriñu agriculture vous avez vu un peu son engagement pour la cause des des des terres de Ndengler Euh, xam na agriculture xam na njëriñam moom la dundee ci lañ ko ci lañ ko yar c'est un homme de la terre Ndiaga Niao seen une localité dépourvue de tout mm-hmm. Euh, donc xam na njëriñ bi santé am mm-hmm. ñàkkul ne bu fa demee vacances dina gis des situation d'urgence yoo xam ne euh, dañuy heurter li nga xam ne euh, moom mooy sa mm-hmm. sa sa sa conscience xëy na bu ci waxul daf ci taxawul rek sa doit juste être une omission mais yaakaar naa ne ñoom ñi nga xam ne euh, dañoo bëgg a toucher le capital humain euh, secteur la boo xam ne dinañu ko accorder une euh, très grande attention. Et euh, Momar Cissé, notre euh, collègue qui nous précise qu'Ibrahima Sy est un ancien chercheur en géographie de la santé au département des géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On commence à en savoir un peu plus. Voilà, il se rapproche un de mon ah <laughs> chercheur en environnement alors je recherche le le truc euh, de de de kii euh, il se rapproche un peu. Le de docteur, euh, mon voisin d'ailleurs c'est un docteur. xarañ euh, trop ça peut lui voilà donc Merci. donc Ibrahima kii ma rek kii ma nu mu tudd confirmer ma rek bu dee bu dee bu dee yow la. qui a fait ses études à Strasbourg et qui a soutenu sa thèse là-bas en France. à l'université Louis Pasteur, à l'université Louis Pasteur. Pour les précisions. Ouais, pour les je, je vois ici. Alors Ibrahim si alors on nous a ah oh <laughs> c'est lui c'est le voisin. C'est le voisin. voisin. Voilà. Je vous l'ai dit. Alors euh, je vais envoyer la photo à à, à Modou parce mm -hmm. que je je connaissais un peu euh, le sens, euh, l'orientation de son, de, son, de son engagement euh, politique. Effectivement, c'est lui. Dès qu'on a commencé à parler de docteur en environnement, euh, j'ai compris que c'est lui. Alors, euh, Ibrahim Si qui me l'a envoyé. Euh, alors qui me l'a envoyé voilà c'est c'est nouvelle tête Ibrahima Sy c'est un homme euh, c'est un intellectuel hein c'est un universitaire euh, c'est un homme qui a le qui a le profil de de de l'emploi donc comme je le soupçonnais c'était lui en tout cas félicitations Ibrahima et bon vent c'est un chercheur c'est un universitaire voilà c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées euh, voilà, qui s'est toujours proposé pour servir son, son pays, voilà, qui a servi son pays dans le domaine de l'enseignement et à qui aujourd'hui on donne la chance de servir davantage son pays. Euh, bonne chance, euh, cher voisin. <laughs> alors dañuy euh, wéy ba ba tey ci euh, gouvernement bu bees bi Maïmouna euh, Bassirou Diomaye Faye mandat cinq ans la am est-ce que tey jii ak li koy xaar yépp Euh, daanaka secteur pratiquement yëpp fii ci Sénégal euh, ñoo am luñ ci war a war a jubbanti ah, te sànq Ousmane Sonko wax na ko ne dañoo teg gouvernement bu bees boo xam ne day yeesal gouvernement bu efficace boo xamante ne dina gën a jege askan wi est-ce que euh, li ñuy xaar lépp ci ñoom ci diiru cinq ans dinañ ko mën a matal wala faw rek ñu mos tuuti ci ci defar lu baax nu mu nar a demee ci sa gis-gis. en équipe bi dal na xel. Hmm. équipe bi dal na xel. c'est composé en tout cas pour la plupart man pour ceux que je connais euh, pour ñi nga xam ne xam naa leen euh, d'hommes et de femmes compétents euh, d'hommes de terrain d'hommes rompu à la à la tâche et ci benn aussi ci beneen affaire aussi nit yoo xam ne mën nañu am njort bu rafet mhm. ci ñoom par rapport ak seen parcours par rapport ak seen defin par rapport ak li nga xam ne moom mooy seen jëfin donc loolu espoir la te xam nga espoir Euh, moom mooy dundal nit. Mm-hmm. beneen mbir bi mooy euh, l'élection de Bassirou Diomaye aussi euh, est un brin d'espoir un brin d'espoir pour les jeunes. Mm-hmm. yi nga xam ne ils se sont mobilisés pour le porter au pouvoir malgré les doutes émis par les par les élites intellectuelles et politiques mm -hmm. sur sa capacité à diriger ce pays-là mu euh, nekk espoir pour les masses défavorisées mu nekk euh, un brin d'espoir un vent d'espoir euh, pour ñi nga xam ne ils sont laissés en rade mhm. euh, par le train du développement par le train du bien-être mhm. parce que Sénégal euh, ñun dans le cocon euh, de notre entourage immédiat Euh, voilà nga génn jaar Corniche dem centre-ville jaar VDN jaar autoroute tu résumes le Sénégal ou le développement du Sénégal à ça il y a encore beaucoup à faire. Mm -hmm. chance bi Bassirou Diomaye am. mooy euh, xam nga alternance bi muy am en deux mille euh, en deux mille douze euh, Sénégal réew mi dafa taxaw presque pendant un an deux mille onze yëpp ci crise la ñu la ñu nekkoon l'économie taxaw la croissance a chuté à un point neuf njëkk yi yokk nit ñi sonn Euh, bailleurs de fonds yi xaw ñoo tourner le dos un mhm. peu euh, à cause de l'instabilité bi ñu doon bi ñu doon dund les bailleurs parfois ils nous tournent le dos un peu mais ils reviennent toujours parce que ñoom ils savent que le Sénégal arrive toujours à trouver des solutions à ces situations de tension mhm. politique électorale euh, donc ñoom ñu jël nguur gi dans ces conditions là bi ñu ñëwee je me rappelle Macky Sall dafa bénéficier wu d'une aide budgétaire de la France de 80 milliards pour financer la campagne agricole ñu jël réew mi ci situation boo xam ne courant bi xuy xamaj euh, avec le plan tàkkal bi nga xam ne dañu ko doon matérialiser euh, ñu jël euh, une partie de cet argent là injecté ko ci plan tàkkal bi injecté ko en vivre de de de soudure euh, financer yenn secteurs yi euh, pour que économie mën a redémarrer et en 2012 d'ailleurs on s'est retrouvé avec une 2012 2013 avec une croissance de 2 points euh, de 2 points de 2 point 6 mm mm-hmm. donc ñoom am nañ chance jëruñu euh, réew mi ci euh, situation boobu ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko fekkee woon même si avec la Covid-19 ak la guerre russo-ukrainienne euh, l'économie a, a, a désaccéléré, euh, l'économie, euh, il y a eu un ralentissement. Euh, les prévisions de croissance, euh, par exemple, en 2019, on s'attendait à une croissance à deux chiffres, à 10,2%. Euh, après, les prévisions ont chuté avec la COVID-19. Les prévisions euh, ont, ont été un peu avec la la la guerre russo russo ukrainienne mhm. euh, tey ñu ngi nekk aux environs de cinq virgule six euh, ñu ngi naan avec les bonnes prévisions on peut monter à sept virgule deux euh, donc euh, on peut présager aussi d'une bonne tenue des finances publiques mhm. lu lu bari li nga xam ne moom la ñuy reproché Macky mooy l'explosion de la de la dette mhm. ñoom waa nguur googu waa nguur bu passé bi doon justifier Euh, par le besoin d'investir par le besoin euh, de développer certains secteurs dette bi dafa exploser euh, le service de la dette dafa augmenter euh, de manière drastique sous le régime du président Macky Sall ils devront faire face à ça mais je pense que hérité wuñu d'un pays exsangue mm -hmm. à l'économie exsangue y a des il des acquis mm -hmm. il y a des choses qui ont été faites euh, ñoom nag bu ñu ñëwee Euh, xëy na ci li ñu war a gën a concentré wu et nguur gi fi jóge ci la loolu la lajjee xëy na euh, sur l'humain mm-hmm. la qualité de vie la cherté de la vie mm-hmm. les questions d'éducation les questions de de santé mm-hmm. euh, éducation formation professionnelle euh, investir nañu fa bu baax a baax mais du doy Mm-hmm. parce que éducation euh, secteur bu prioritaire la mais ñoom dinañu euh, par exemple les questions d'électricité la chèque mm-hmm. de l'électricité euh, Sénégal léegi classe moyenne bi sax dafa appauvrir mm-hmm. euh, boo ñëwee dund bi cher na loyer bi cher na euh, électricité bi cher na pour les populations urbaines boo demee dans les dans les zones rurales Euh, dans le Sénégal des profondeurs euh, ñun ñu ngi jooy électricité bu cher ñoom électricité sax am na ñoo xam ne duñu ko gis. Mhm. ñun ñu ngi jooy ndox bu cher am na ñoo xam ne gisaguñu ndox ba tey. malgré les innombrables efforts faits avec le PUDC euh, alors dund bi ñëwagul agriculture bi bu ñëwee dañuy recourir euh, à des vivres de soudure donc ñoom je pense que bu fekkee ne bëgg nañu réussir seen mandat dinañu attaqué wu euh, Mm-hmm. parce que lu bari def nañ ko ci infrastructure lu bari def nañ ko ci les questions de mobilité mais le sénégalais en tant que tel et loolu bokk na ci li engendrer la colère des population mm-hmm. nit ñi dañuy dund dund bi metti euh, les jeunes là chômage bi euh, metti mm-hmm. mais aussi il faut ñu tenir un langage de vérité au jeunes yow mënuloo amoo qualification amoo métier amoo njàng aussi nga toog di naan dund bi dafa metti moo tax dinañu accentuer davantage les efforts euh, dans la formation technique ah et, et, et professionnelle pour doter les jeunes laissés en rade par oui. le train euh, de de de de la scolari de uh-huh. la scolarisation ñu mën a am des métiers euh, dinañu insister sur le secteur industriel xaw ma kan mooy le ministre de de de l'industrie dina nekk une secteur un, un secteur pardon prioritaire mm-hmm. parce que tey Sénégal tamit mu doon secteur boo xam ne daanaka mooy secteur bi gën a lajj euh, ci nguuru président Macky Sall mu doon secteur boo xam ne euh, euh, consentir ñu fa les efforts qu'il fallait ba nga xam ne dinañu am des industries pour absorber euh, toute cette masse de jeunes yi nga xam ne en proie au chômage voilà Serigne ministre du commerce tout à c'est le maire de Sandiara ah. euh, c'est le maire de Sandiara euh, Sandiara commune émergente. Mhm. Euh, voilà il a essayé de mettre en œuvre une bonne vision bu ñu ko te Serigne Gueye à l'industrie c'est un excellent choix. Mm -hmm. c'est un excellent choix homme de défi. Euh, nit la koo xam ne il s'y connaît très bien il fut euh, directeur Afrique euh, de nestelle ah. de Nestlé donc c'est un industriel le domaine de l'industrie il connaît et j'espère que gouvernement bi et dinañu consentir beaucoup d'efforts beaucoup d'investissements euh, pour industrialiser ce pays-là gis nga réew mi mënuñu absorber le chômage te amuñu des industries mm-hmm. le secteur de l'industrie dafa lajj mm-hmm. euh, jox nañ ko fi Aly Ngouille Ndiaye jox nañ ko fi Moustapha Diop jox nañ ko fi ñeneen ak ñeneen mm-hmm. mais attention bi nga xam ne moom la soxla woon euh, secteur bi mosu koo am dafa mel ni euh, ñu ubbi woon yëpp dañu daal voilà boo xoolee tissu industriel bi dafa effrité wu jéem nañu def effort en mettant en place le parc industriel boo demee ce sont des milliers d'hectares yoo xam ne tabax nañu ko Euh, mu nekk une zone franche industrielle mais occupation bi ñu ci waroon am mhm. euh, amuñu ko ci euh, même pour certaines entreprises yu war a bénéficier de cette zone franche là parfois duñu respecter normes yi parce que boo bu ñu la installé ci zone franche doo fay taxe yenn kii duñu pression fiscale yi duñ la ko teg Euh, c'est pour que c'est pour favoriser l'exportation mm-hmm. et boo xoolee duggee ci fonctionnement wu zone industrielle boobule euh, da ngay gis ne am na entreprise yoo xam ne quand même elles ne répondent pas aux normes mm-hmm. voilà donc euh, industrie la ñu mën a résorber le gap de déficit de notre balance commerciale industrie moom la ñu mën a créer des emplois kenn mënul développer que personne ne peut parler d'émergence sans un pays industrialisé Euh, et ki ñu fa teg aussi euh, mën nañu am yaakaar bu baree bari euh, ne dina doxal voilà dina dina doxal secteur bu mu xam la alors secteur bu mu xam la waaye tamit boole nañ ci commerce te xam nañ ni dëkk bi dafa metti sénégalais lambda yi ñu ngi jooy dund gu cher gi est-ce que tamit yaakaar am na ngir rek ñu saafara yooyu la jafe-jafe effectivement Germaine saafara mën na ah. bi dina metti trop. waaw Korité bi Korité bi dina metti trop trop parce que déjà euh, Sénégal euh, depuis euh, mën naa ne le deuxième mandat de de on ne sait pas beaucoup comme ce fut le cas dans le premier mandat. Mm-hmm. Euh, ils ont été un peu distraits. Mm-hmm. par les questions politique par la tension politique par la question du troisième mandat euh, par l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr mhm. Ousmane mm -hmm. Sonko Mame Mbaye Niang euh, euh, l'état du du du du Sénégal. Euh, ñu nekk ci tension trois ans voilà trois yoo xam ne déjà Covid ñu ñu dugg ci deuxième mandat Covid 19 ne tension politique récurrente bi bouffer l'espace carrément euh, ensuite la guerre russo-ukrainienne ñëw ajouté wu euh, tension politique tensions moo tax tension politique baaxul ci réew parce que dafay arrêter l'économie mm-hmm. euh, entreprise yi dañ ko yëkk mm-hmm. déjà que entreprise yi dañoo yëg Covid bi ñuy xaw a jógaat tuuti mm-hmm. guerre russo-ukrainienne bi ñëw daaneel yenn secteurs yi pareeguñu tension politique bi nit ñi euh, farlu bi ñu war a am sur la gestion des affaires publiques euh, amuñu ko. Mhm. les gens ont passé le temps à faire de la politique. 2022 mhm. ñu am des élections locales. Mhm. et législatives. oui gis nga man mi yor entreprise de média dama koy yëg bu baax a baax a baax. <laughs> d'abord bu amee tension politique. Euh, su surtout que on a des ministres avec des des des des des des des appartenances politiques partisanes euh, day dañuy dañuy distrait. liggéey bi nu mu war a demee euh, euh, planification bi yi ñu ni mu war a demee du ko du ko du ko demee hmm. euh, bu ñu demee bu ñu amee élection locale dans beaucoup de service de l'État nit ñi dañuy dem battre campagne dañuy dem battre campagne hmm. donc Euh, la euh, bon ñu fay nekk dañuy évacuer juste les affaires courantes hmm. mais liggéey bi nu mu war a demee doo ko demee entreprise yi dañ koy jëkk parce que aujourd'hui Sénégal entreprise yu bëri ci commande état la ñu dépendre fii communication moom mooy dundal presse moom mooy dundal média euh, presque 60 pour cent ou 70 pour cent des parts de marché ci état lay jógee ces structures euh, publiques euh, parapubliques mm-hmm. donc mbir mi day ralentir donc ci 2022 mbir mi ralentir na janvier mm-hmm. balaa mbir mi di ñëwaat à la normal ñu dugaat ci élection législative jóge ci élection législative dugaat ci waxi mandat jóge ci waxi mandat dugaat ci rapport loolu moo tax jour bi ñuy la veille bi président de la waroon def adresse à la nation bi reporter élection bi mhm. euh, j'avais fait un appel en disant vivement qu'on tienne cette élection oui. on en a marre et on en avait marre on voulait tout simplement tourner la page. Mhm. qu'on aille aux élections et que nit ñi jublu ci li nga xam ne eh, moom mooy liggéey. Mhm. te xoolal bu alternance amee day am presque six mois de ralentissement. Mhm. parce que le temps que ñu def les passations de service. le temps que gars yi ñu jël installé wu. le temps que ñu miin dossier yi. le temps que ñoom ñu mën a euh, jël seen envol. mën naa ne l' ne deux mille vingt quatre est perdue et pendant ce temps. les entreprises qui dépendent de la commande de de de, de la commande publique euh, ces entreprises là elles souffrent. Mm -hmm. et ces entreprises là souffrent depuis deux mille vingt et depuis deux mille vingt. le Covid ah léegi nag euh, moo tax nag euh, et puis aussi bokk na le le l' ancien régime a chèrement payé ses tensions. Mhm. moo tax souvent gis nga tension politique dafay dafay défavorable toujours euh, ci régime en place gis nga les opposants ils l'ont tellement compris. que la tension est défavorable au au, au, au régime en mhm. place que bu ñu jubloo élection rek dañuy jéem a créer tension parce que tension bi dafay exacerber euh, li nga xam ne moom mooy la colère et puis après ce qui suit c'est une volonté de de de sanctionner mm-hmm. et il y a eu une volonté de sanctionner l'ancien régime euh, pour tout ce qu'on a vécu vécu entre 2021 ak 2000 2024 léegi aujourd'hui si si les entreprises euh, rencontrent des des des problèmes Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, après ça se répercute. bien ah. Euh, mm-hmm. la la commande publique bu doxul la dette intérieure bu ñu ko fayul mais c'est un cocktail boo xam ne bu dajaloowee ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi dañuy sonn. Mm-hmm. Korité bi dina sonn et l'économie ne va pas redémarrer avant deux mille vingt cinq ba pare. beneen problème bi ñii di jànkonteel mooy dañoo ñëw le budget et presque exécuté à moitié. Mm-hmm. bu ñu ñëwee. Euh, il faut que ñu dem négocier à l'Assemblée nationale euh, avec les autres groupes parlementaires pour mun a voter lu une loi de finances euh, rectificative mm-hmm. ah pour ñoom aussi ñu mun a mettre en œuvre ñoom mun nañ mun naa jàpp ne seen seen i vraie politique seen i vrai chantier ñu ko mën a mettre en œuvre qu'en deux mille vingt cinq euh, avec le vote du nouveau budget fi mu nekk nii euh, dañuy colmater dañuy korkoral euh, dañuy jéem a réorienter jéem a négocier avec la majorité à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. pour mën a dem ñuy ñaan rek. que ñu jël Sénégal teg ko ci kanam. Mm-hmm. ñu jël Sénégal teg ko ci kanam. pour permettre au Sénégalais de respirer parce que dund bi metti na. mais mais est-ce que euh, président Bassirou Diomaye fay conscient wul ci yenn euh, enjeu yi parce que gis dégg nañ ko ci discours bi keroog muy wax ne dinañ gën a état dina gën a collaborer avec le secteur privé. mais bien sûr mais euh, <laughs> d'ailleurs ça me fait rire Macky Sall disait la même chose ñu ne dañuy il faut un secteur privé fort. Mm -hmm. sans un secteur privé fort on ne peut pas industrialiser un pays. sans un secteur privé fort on ne peut pas absorber le chômage euh, des des des jeunes gis nga réew yi nekk di ci génn yëpp boo jëlee réew bu mel ni Maroc boo jëlee réew mu mel ni Côte d'Ivoire dañoo renforcer le secteur privé mhm. euh, Sénégal euh, c'est un secteur de polichinelle c'est une économie extravertie mhm. boo xoolee tous les grands chantiers de l'État qui ont englouti des des centaines de milliards Euh, le secteur privé étranger ñoom ñoo nekk aux avant-postes parce que suñu secteur privé bi du ñu am l'accès au financement euh, du ñu am l'accès à la technologie euh, bien que Euh, du temps du président Macky Sall voté nañu une loi PPP partenariat public-privé dans beaucoup de projets État du Sénégal xeex na dugal li nga xam ne moom mooy secteur privé bi mhm. euh, dans beaucoup de grands projets mhm. mais terewul le secteur privé étranger euh, s'adjuger la la la la part du la part du lion mhm. euh, gis nañu aussi dans l'autoroute à péage ci yenn concession yu bari état du Sénégal xeex na ba jël benn pourcentage jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy le le secteur privé ñoom ñooy le secteur privé sénégalais mais li des mooy euh, et la BNDE a été créée dans ce sens la mhm. li des mooy euh, fexe ba le secteur privé am accès au financement euh, am accès à la technologie ba nga xam ne bu ñu amatee de gros chantiers au lieu de confier ça au secteur privé étranger ñu mun ko confier au secteur privé de notre pays mm. ba pare la loi PPP bi ñu voté mm-hmm. euh, daan nañ ko daan matérialiser mais la matérialisation posait problème du ñu li ñu ci waxoon yëpp respecté wuñu ñu ci jublu woon yëpp c'est-à-dire bu ñu amatee un grand chantier boo xam ne ça doit coûter quatre cent trente-cinq milliards ah mhm. nañu ko confier euh, la tête de de pont na nekk un secteur privé sénégalais après moom dina dem euh, def les accords qu'il faut pour avoir la technologie et puis ñu def li nga xam ne moom mooy le transfert Euh, de technologie. Ça a été fait dans certains projets euh, comme le train express régional. Mhm. Ce sont des ingénieurs sénégalais ñoom ñooy doxal projet bi et qui ont été formés. Ce sera fait pour le BRT. Mhm. mais il faut que dorénavant bu fekkee dañoo bëgg a renforcer le secteur privé. Mhm. que ñu teg leen aux avant-postes waaye tamit ku wax lii wax la ci des. Euh, un État qui est pressé. un régime qui est pressé. qui a des élections. souvent dañuy préférer la facilité. Mhm. parce que le secteur privé sénégalais du mën a préfinancer les projets. oui alors que les autres secteurs privés ils sont soutenus par leur pays. Mhm. Euh, muy Chine muy Maroc. plus facile muy Turquie mhm. muy France. Euh, avec les les les les les kii là nu mu tudd euh, les Exim Bank là. dañ leen di jox financement. donc yow seen état du Sénégal da nga naan dama bëgg a tabax tali dama bëgg a tabax l'autoroute Dakar Saint-Louis. Mhm. Euh, le co c'est ficelé hein ça va biento euh, être fait. Mhm. Euh, mais moom da ngay gis le turc mu ñëw avec le prêt. Mhm. day ñëw indi la technologie bi euh, ñëw indi financement bi alors euh, toi tu te dans deux ans j'ai des élections j'ai besoin de bilan alors au lieu ngay dem. di di di di di di dem di accompagner sa secteur privé. Mhm. mu war a def dossier nga war koo porter euh, l'État régime bi day préférer euh, jox le marché. c'est les réalités du voilà au secteur privé. Mhm. Euh, étranger. Mhm. bi nga xam ne dafa ñëw ak financement dafa ñëw ak technologie. mais daal ñoom ñoo gën a pare. mais non duñu dañoo pare parce que seeni réew ñoo leen jàppale. mais ni ñuy def tey ba Turquie bi nga xam ne barki démboo Njaay. feeñu ñu woon. ñu woon di jouer les premiers rôles en Afrique et même dans le monde ba ngemb seen secteur privé ba ñoom ñuy mën a sukkandiku ci seeni banque di indi ay financement di tabax Sénégal mhm. état du Sénégal il faut que mu passe par cette expérience la quitte à perdre un peu de temps. Mm -hmm. il y aura un euh, sacrifice. Euh, voilà, il faut que nous passions par cette expérience-là. Nous avons dans le secteur privé, nous pouvons concourir à l'intérieur du pays, a dem aussi concourir dans la sous-région. Euh, may leen avons mm-hmm. les Marocains aujourd'hui, tout le secteur bancaire sénégalais mm -hmm. est contrôlé euh, par le, presque contrôlé par le Maroc. Les Français se sont beaucoup retirés, mm -hmm. euh, presque contrôlés par le, par le Maroc. Euh, le HAC, le Nigeria. Mm -hmm. Nigeria, bon, les banques Yubari, euh, ce sont des banques nigériennes. Mais voilà, nous, nous, l'État du Sénégal, il faut moudiar par là. Mm -hmm. Et ni euh, Tokfi aussi, euh, il ne faut pas qu'ils en ligne de mire le prochain mandat. Mhm. parce que souvent quand tu as en ligne de mire le prochain mandat euh, da ngay rater lépp mhm. dès le départ euh, tu commences à essayer de construire mhm. on te dit eh euh, bu mettee sénégalais duñ la votel de tu commences à construire mhm. on dit oui tu vas fâcher tel lobby tu vas fâcher tel groupe de pression et ñii nii tamit bokk na ci li tax nit ñi am ci ñoom yaakaar mooy ne ñoom ils ont en tout cas à chaque fois ils ont promis de s'affranchir Euh, de ce type de de de de, de pression et s'ils arrivent à s'en affranchir ce qui est très difficile au Sénégal parce que mm. y a des groupes de pression il y a des lobbies euh, yoo xam ne ñoom ñooy stopper souvent euh, les nouveaux dirigeants dans leur dans leur élan s'ils arrivent à s'en approcher et s'ils arrivent à oublier le prochain la prochaine élection ils pourront euh, relever ce défi-là Euh, Maïmouna mu mel ni on peut pas parler du service privé sans parler bien sûr du service public euh, deux secteurs qui vont ensemble Euh, une nouvelle nomination hein, avec un, un, nom, mais un nom qui nous est pas inconnu, Olivier euh, Boucal, nommé euh, au ministère de la fonction publique, de la réforme et du service public. Olivier Boucal qui est, euh, à l'instar de Maimouna Diaye, euh, un détenu dit politique. On se souvient à un moment le mouvement Goudomp en marche. Il avait été arrêté, un ex-détenu, on peut dire. Il avait fait neuf mois en prison. Il est aujourd'hui ministre, donc je répète, de la fonction publique, de la réforme au Sénégal aussi. Là, secteur Bobo la réforme du service public. Mhm. c'est important. Mhm. et je pense que dans sa deuxième adresse à la nation. Euh, Bassirou Diomaye Faye en a parlé. Mhm. il faut réformer euh, le service de la fonction publique. Euh, c'est un énorme chantier c'est un ministère boo xam ne nag j'espère que cette fois-ci euh, dinañ ko jox gëdd bi war de Olivier Boucar je ne peux pas euh, en dire euh, en, en dire plus je ne le connais pas bien Euh, mais euh, je peux juste parler du département qu'il euh, occupe euh, souvent département fonction publique sax allié PIT yi mm. <laughs> bari na luñ ko luñ ko occupé voilà Samba Sy euh, est resté longtemps à ce département mais département la boo xam ne fulaa luñ ko te pourtant ak am importance le service public de l'administration bokk na ci les goulots qui étranglent le développement euh, mm-hmm. du du du Sénégal le le fonctionnement Euh, du service public de de l'administration euh, citoyen bu nekk mën nga ci wax citoyen bu nekk am nga sa expérience avec les lenteurs administratives euh, même dans la mise en œuvre des réformes euh, dans la matérialisation des, des des projets des projets de développement euh, administration daf ci am wàll bu bari euh, te bari na lenteur yoo xam ne dafay ralentir war nañu réformer cette administration il l'a dit et il l'a fait à ce départ à cette précédente mhm. formulation il a, a rajouté la la réforme de l'administration service public de l'administration euh, on a des énarques mm-hmm. Ils ont tous de de de l'ENARC, euh, on a des énarques à la tête de l'État du du Sénégal. Euh, on a des gens euh, qui ont servi dans une régie financière, mhm. qui contribue presque pour deux quarts euh, dans le budget du du, du Sénégal muy les impôts euh, et, et domaines de deux mille six cent euh, milliards de contribution contributions euh, donc ñoom bu ñu waxee réforme de du service public de l'administration euh, à leur niveau am na beaucoup de goulot d'étranglement yoo xam ne ñoom identifié nañ ko Boucal ex-membre de PASTEF à la tête donc de de la fonction publique est-ce qu'on peut s'attendre à des limogeages de masse dans les jours à venir par rapport à certains services publics clés affaire bi du doon euh, doon en fait euh, pour man l'administration elle est incolore euh, maintenant nag mën nañu mën nañu contribuer à dépoli dépolitiser l'administration mm-hmm. te bu ñu lancer la dépoli la dépolitisation de l'administration ils devront commencer par les régies financières mm-hmm. le débat a été posé on a eu une élection à laquelle on prépare trois euh, hauts fonctionnaires trois trois inspecteurs Euh, des impôts et domaines. Mm-hmm. Euh, une politisation à outrance euh, euh, de, de de des impôts et domaines. Mm politique bi am na fa doole lool. Mhm. lu nu mel mën na bokk na ci li mën a gàllankoor koom-koom bi gis nga fi Bougane Gueye Dany bi ñu ko redressé. Mhm. yenn médias yi bi ñu leen redressé. Mhm. dañoo yuuxu ne ñu leen redressé c'est des inspecteurs et domaines de Pastef. Mm -hmm. vous avez suivi un peu l'incident entre Bougane Gueye Dany. Mm -hmm. et cet inspecteur des des impôts. c'est aller très loin loolu moo tax dañoo war a dépolitiser l'administration euh, ministère des finance Euh, tradition bi tradition républicaine bi euh, ki ko daan occupé daanul daan nekk koo xam ne euh, dafa am une appartenance politique euh, que ce soit su Wade euh, su Diouf mm-hmm. on a respecté la tradition su -hmm. sous Macky Sall nag voilà au début la tradition républicaine a été respectée on a eu Amadou Euh, comme ministre comme premier ministre des finances euh, après on a eu Amadou Ba euh, vers 2016 Amadou Ba est entré en en politique après Amadou Ba on a eu Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo qui est le coordonnateur du département de Podor euh, qui a est responsable politique après on est revenu à la à à la tradition avec Moustapha Ba voilà, ki ne pas très très engagé politiquement, mais qui donnait un coup de main politique au niveau de, de, de, de Kaolak. et au niveau du du du du du Ndoukoumane. Mhm. Euh, donc euh, espérons que dinañu revenir euh, à la tradition dépolitiser également euh, le ministère des Finances qui regorge de hauts cadre de cadre sénégalais de de de valeur. Mhm. de cadres yoo xam ne tey bu mise en œuvre PSE amee résultat yi mu am. am réussite bu mu am dans certains domaines on doit ça beaucoup aussi à des cadres à ces cadres là et donc on a intérêt à dépolitiser li nga xam xam ne euh, moom mooy la fonction publique y a aussi les les les les les recrutements politiciens Euh, gis nga bi ñu lancé le recrutement des 5000 voilà le clientélisme politique bi ñu lancé le recrutement des ense des des enseignants 5000 euh, enseignants il y a eu beaucoup de quotataires politiques. Mm-hmm. Euh, loolu c'est pas normal on doit donner les chances à tous les Sénégalais et non aux Sénégalais qui militent dans les partis ceux qui militent dans les partis politiques ne font pas 15 pour cent de la population du du Sénégal maintenant nag Bassirou Diomaye Faye il dit réforme. am na sax lu mu ci wax mu ne léegi fonction publique li ci commencé am mooy dangay dem nga teg sa doom mhm. c'est dire Euh, fan la nar a teg le le le curseur. Mhm. et loolu bu ko defee dina doon loo xam ne sénégalais dinañu ko saluer. Mhm. clientélisme bi. Mhm. Euh, recrutement partisan recrutement politicien yi dans la fonction publique. Euh, nekk na loo xam ne lu ñu war a dénoncer la te nekk na loo xam ne dafa nekk le mal de l'administration. sénégalaise maintenant bu ñu ñëwee nañu def li war rek. mu bañ a nekk genre chasse au sorcières te ñoom tamit bu ñu fa jëlee ña fa warut a nekk. ñoom tamit bu ñu fa teg. ña fa warut a nekk. bien sûr. peut-être may mën nañu jeexalee ak euh, beneen secteur bu clé di agriculture ñu dénk ko euh, Mababou euh, Diagne ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ñu boole secteur yëpp euh, def ko benn ministère te gis nañ tamit keroog ci discours Bassirou Diomaye fay euh, muy euh, wax ni daal faw ñu am souveraineté alimentaire en tout cas foog rek mu def ci ay ay ay ay ay jéego secteur agriculture naka nga gisee ni secteur agriculture damay am yaakaar que et dama doon ne Euh, le prochain président bi nga xam ne dafa bëgg euh, euh, jël développement dafa bëgg rendre inclusif li nga xam ne moom mooy le le le bien-être mm-hmm. dafa war a jël secteur agriculture mu jox ko attention bi nga xam ne lay Wade ak Macky Sall jox nañ ko le secteur des infrastructures mm-hmm. c'est-à-dire mu am un grand un grand plan de développement de l'agriculture. Avec le plan Goana. Ablaye a essayé avec le plan REVA, euh, le plan Goana, mm -hmm. mais euh, résultat, les résultats escomptés. Macky Sall bi mu ñëwee il a lancé la modernisation de de de, de l'agriculture oui. euh, avec le ministère de l'équipement euh, de l'agriculture et de l'équipement rural mais ba tey agriculture dans un pays comme le Sénégal euh, qui dispose de vastes étendues de terre Euh, euh, un pays boo xam ne avec une population jeune Euh, plus de plus de soixante-dix pour cent de la population mm -hmm. euh, un pays euh, ni mu ni mu configuré woo agriculture war na nekk un secteur essentiel souvent nag Euh, ñoom dañuy naan dañuy gargariser wu euh, des résultats dans le secteur de l' agriculture mais euh, agriculture nekkagul teg en tout cas joxaguñu ko dans ce pays là toute l' attention que le secteur mérite parce que boo jëlee effort bi ñu def dans les infrastructures dans la mobilité c' est bien ça aussi c' est du développement mm-hmm. ça aussi c' est important pour un pays qui aspirent à l'émergence parce que quand les gens ne se ne se déplacent pas euh, par exemple tey euh, pour quitter Casamance ñëw Dakar euh, boo yeewoo cinq heures du matin à midi tu es à Dakar. Mm-hmm. Euh, loolu c'est une grande avancée. Mm-hmm. te dafay impacter secteur yëpp. boo dëgg mun nga dëkk Thiès léegi di liggéey see Dakar mun nga dëkk Mbour di liggéey see Dakar. Mm-hmm. ci mobilité liñ ci def. vraiment c'est c'est c'est appréciable. mais dafa jot. ñu déplacer curseur bi dans le secteur de l'agriculture li ñu def ci ci ci ci ci ci mobilité li ñu def ci infrastructure ñu jël double bi injecté ko dans l'agriculture euh, réew moo réew moo réew moo xam ne 64 euh, pour cent de la population dépend du secteur primaire mm-hmm. réew boobu war nañu jël euh, la part la plus importante des richesses publiques mm-hmm. consacré ko élevage agriculture pêche. Ah, président baykat mu tiire voilà mu tiire li nga xam ne euh, moom mooy le PIB. oui euh, contribuer aussi à résorber le déficit euh, de notre de notre balance de notre balance commerciale. Vous voyez un peu la vallée du fleuve. l'emblavement des des des des, des terres yu ñuy yu ñuy promettre euh, autosuffisance en riz ñu ngi ko doon xaar en 2017. Mm -hmm. on l'a pas eu. euh, on n'a pas pu changer les habitudes alimentaires. Mm-hmm. lancé woon nañu fii le concept euh, lekk nu ñu ko woowee woon sax. bay di dundee euh, bay di dundee. Sénégal bayu ñu dundee. et ça s'est voilà li ñuy dundee li ñuy bay li ñuy bay dundeewuñu ko. Mm-hmm. li ñuy dundee. exporté euh, bayuñu ko. voilà am na filière yoo xam ne nag euh, ñu ngi ñu ngi dem. Mhm. comme la filière de de de l'anacarde. Oui. Euh, le secteur de la transformation mu ngi dem je trouve anormal euh, que ñu jël jus goyave euh, bayee ko ci réew mi. Mhm. transformé ko ci réew mi. Mhm. mu gën a cher mu euh, benn jus goyave litre jus goyave di jar cent alors que le Coca-Cola mu ngi jar neuf cent. alors que en termes d'apport nutritif. euh, en terme de santé euh, en terme médical jus goyave li muy indi coca cola indiw ko donc le sénégalais bi nga xam ne dooleem jotul ginnaaw euh, les jus ya a un gars qui commercialise de bons jus goyave mhm. ñu koy jaayee ci low price yi mhm. euh, bu Dembaka mhm. bon c'est de très bons jus mais ce n'est pas à la portée de tous les sénégalais et loolu yëpp dafay poser des problèmes de secteur de la transformation Euh, des, des, des, des, produits, des produits locaux. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il euh, a une avancée euh, dans ce secteur-là, mais c'est étonnant que les produits locaux coûtent aussi cher. Mm Alors que il y a des investissements à faire, il y a des subventions à consentir pour ce secteur-là, pour que Sénégalais, en termes de jus, en termes de boissons, ñuy dundee meññeefu réew mi. Mhm. ci wàllu ceeb bi. am war nañu changer euh, li nga xam ne moom mooy euh, les habitudes alimentaires euh, voilà nañu bégal ci réew mi ceeb boo xam ne dina égaler le goût du riz parfumé. ba nga xam ne sénégalais yi dinañ ko jënd. voilà a consommer. ba nga xam ne sénégalais yi. dinañ ko dinañ ko mën a dinañ ko mën a consommer mais bi. Euh, nu mu tudd euh, dugub bi euh, ak yéen le secteur de de de de l'arachide mhm. que les que les producteurs que les cultivateurs puissent vivre de leur de leur de leur de leur de métier donc secteur boo xam ne dafay concentrer 64 pour cent de la population ce secteur là mérite une attention particulière Ousmane Sonko il vient d'une localité où l'agriculture joue un rôle primordial mhm. muy la Casamance euh, Bassirou Diomaye fay en bon séeréer euh, dafay bay nawet euh, dajale pour ñëw jàng pour ñëw jàng mhm. pour ñëw donc xam na importance su mbay te ñoom bu dee bëgg nañu réussir vraiment à à marquer aussi l'histoire de ce pays là dinañu gën a toppatoo secteur yu mel ni agriculture industrie santé mhm. éducation emploi je pense que euh, dans les autres domaines Macky Sall a beaucoup fait mën nañu wàññi tuuti les investissements euh, yi nga xam ne dañ koy def ci domaine mu agriculture ci domaine mu infrastructure yeeg yenn domaines yi euh, déplacer curseur bi sur ces dans ces sur ces secteurs vitaux de l'économie du Sénégal te gis nga bu ñu développé mbay mi bu boobaa dinañu mën a améliorer li nga xam ne moom mooy le le le capital le capital humain sénégalais. cas, espère que ce gouvernement soit placé sous le signe de la prospérité, bien sûr. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des ministères clés, bien que tous les ministères ont leur importance dans ce nouveau gouvernement. On a fait, en tout cas, euh, pour cette euh, première liste, ce tout premier gouvernement d'Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye, le tour des ministères euh, clés et stratégiques. Peut-être terminer a ministre de l'économie, du plan et de la coopération rappelait qu'elle l'a aussi été euh, très récemment sous le gouvernement de, de, de Macky Sall, un ministère qui est également clé dont on n'a pas beaucoup parlé, mais l'économie rejoint en tout cas tous ces secteurs euh, euh clés qu'on a évoqués. Euh, Abdourahmane Sarr, il faut qu'on s'arrête sur lui. Euh, Abdourahmane Sarr, c'est un brillant économiste sénégalais euh, qui sert dans les instances internationales. Mm -hmm. je pense qu'en 2012, il, a, il fut euh, ancien candidat 2012 ou 2007 euh, à l'élection présidentielle il n'a pas pu de, non euh, c'était en 2012 il a été stoppé dans son élan en même temps que euh, Youssou Ndour parce que c'était un, un, un candidat ah. euh, indépendant Abdourahmane Sarr euh, quelqu'un qui a le profil de l'emploi xam nga Sénégal depuis 2014 avec le président Macky Sall Euh, su Diouf su Abdou Diouf boo seetloo y a y le célèbre euh, El Hadj Ibrahima Sall. Mm dont on parle euh, comme ancien ministre du plan. Voilà le le le le rôle primordial euh, du plan de la planification et de la coopération dans l'économie. Mhm. lool mooy tabax économie donc bi Ablaye Wade ñëwee il s'est défait euh, de ce département-là. Mm -hmm. En je pense que en 2013 ou 2014 Ablaye Bibi Baldé moom moo nekkoon ministre du plan. Et souvent, les ministres du, de l'économie et oui. du plan euh, sont en conflit avec le ministre des Finances. Oui. Et à l'époque, euh, Ablaye Bilbalde et Amadouba, à l'époque, n'avaient pas échappé cela, à cela. Et donc, euh, après, amna remaniement bu am, je pense bi que Biboun Abdallah ñëwee la, euh, j'espère que je ne me trompe pas, dañoo jëlaat l'économie, le plan, dugalaat ko ci fi nga xam ne moom mooy ministère des finances. Mm-hmm. ñu ñëwaat ba après 2019 Euh, am Amadou Ba moo nekkoon ministre de l'économie des finances et du plan. 2019 mm-hmm. euh, mu amaat changement ñu indi deux ministères. Mm-hmm. Euh, su avec Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hott. Amadou mm-hmm. Hott ñu jox ko plan. ak coopération. Abdoulaye Daouda Diallo ñu jox ko finance et budget. c'est la cohabitation entre les deux au début a posé problème. la répartition des services la répartition des ressources euh, voilà a posé problème. après Amadou Hott euh, Covid bi bi mu duggee euh, il s'est plus concentré sur la coopération euh, maanaam dem di wër ay financement pour financer l'économie permettre à l'économie de rester debout Amadou ot jóge foofu ñu indi Doudou Ka oui Doudou Ka Moustapha Ba Moustapha Ba yor ministère finance et budget Doudou yor ministère de l'économie et du et du plan mu lancé woon un ensemble de projets euh, de financement de de de l'économie euh, du Sénégal Doudou Ka bu yàggoon ci ministère boobu euh, doon nañ doon commencé euh, gis benn ambili euh, boo xam ne dina ko dina ko am parce que am na il a travaillé sur beaucoup de projets particulièrement même sur un plan de financement de la santé et de la retraite mu naroon nekk pour un projet qui allait révolutionner les choses euh, au, au, au, le secteur de la retraite et des et des et des, et des trucs je pense que projet bi sax dugaloon nañu ko ci programme mu Amadou Ba. Mhm. voilà euh, mais il n'a pas pu poursuivre ñu jëlaat euh, ci dernier remaniement bi sous le magistère de Sidiki Kaba euh, boolewaat ministère bi. jëlaat yëpp confié waat ko euh, ki nga xam ne moom mooy Moustapha Ba mais loolu xam nañ ne c'était euh, précaire et peut-être révocable à tout moment. Mm. tey ñu jëlaat ko séparé waat ko jox ko Abdourahmane Sarr Abdourahmane Sarr je lis souvent ses contributions. euh, voilà il a le profil de l'emploi et on espère qu'au Sénégal dinañu may au ministre la le temps mu mën a mettre en œuvre euh, euh, nu mu tudd euh, un vrai développement économique mhm. mu mën a construire l'économie mhm. mën a pla construire la planification des politiques publiques mën a planifier l'économie mën na imbriquer les différents euh, démembrements de l'économie du plan de la planification et puis mën a projeté wu euh, sur euh, sur sur l'avenir parce que tous les ministres yi indi dafa leen ministre de l'économie mm -hmm. euh, ils n'ont pas duré au, au poste euh, muy Amadou Hott muy Doudou muy Bibi Baldé il a fait un bref séjour là-bas euh, ils n'ont pas duré au poste ils n'ont pas eu le temps mm de mettre en œuvre une véritable politique économique parce que finance budget c'est important boo xoolee c'est le ministère qui phagocyte euh, tout même le ministère de l'économie euh, c'est important mais euh, économie moom moo war a planifier moom mo wara organiser moom mo war a constituer le fond de cuve bi nga xam ne moom moo war a propulser euh, les finances moom moo war a propulser euh, le, le le budget et autres et donc Abdourahmane Sarr c'est un excellent choix euh, j'espère euh, qu'il passera de la théorie à la pratique et qu'il va vraiment euh, récolter une excellente note pour le plus grand bien euh, du, du, du peuple sénégalais. C'est un homme qui connaît très bien euh, l'économie ñoom daal premier gouvernement bi euh, dañ leen di rek bonne chance. Mm -hmm. C'est un excellent casting. Mm-hmm. Le choix des hommes il est rassurant. Bah, euh, pour beaucoup nag ils vont passer de la théorie à la pratique euh, par moment nag dans l'histoire du pays euh, les gens ils ont eu d'excellents profils et mhm. ils ont réussi ils ont dans la pratique euh, euh gouvernementale mais ñuy souhaiter rek euh, que ñu mën a que sous la houlette de Ousmane Sonko qui est un homme d'autorité loolu moom kenn du ci tiit que sous la houlette de Ousmane Sonko mu mën a coordonner les énergies Euh, mën a euh, condenser euh, les profils les parcours les expériences de tous ces hommes ba nga xam ne très vite on va ressentir les les les les résultats de cette de cette nouvelle équipe de cette nouvelle équipe gouvernementale Ousmane Sonko nag qu'il fasse preuve il a la personnalité hein il a le cran euh, il n'a pas trop l'expérience euh, d'une gestion euh, gouvernementale mais il a le cran il a la personnalité euh, mais moom na mun a dulier personalité am euh, ba nga xam ne dina mën a conduire cette équipe mm et cette équipe lenn moom xam naa ko bu fekkee ne li muy wax mhm. euh, loolu la gëm mhm. te noonu lay liggéeyee mhm. mën nañu am yaakaar ne dina mener à bien cette barque la il y a de mais on a la chance aussi lui aussi mu nekk une fort une forte personnalité maintenant nag euh, moins moins de xër affaire du doole monsieur le premier ministre ay <laughs> stratégie mënu lu baax yëpp ba mu jeex il faut ma dugal ci cat <laughs> il faut ma dugal ci cat yàlla baax na xëy na mm-hmm. dina dina xam ne léegi mi ngi ci ci nguur gi. incha ah, allah waaw doxalee. comme ah, ah, comme un homme d'État. tout ce qu'on non mu comprendre ne euh, nguur gi du parti Pastef de. ñii ay xale yu la def jë di la jaamu di la adorer comme un gourou ñii nii dañoo am parcours dañoo am jaar-jaar dañoo am l'intelligence sociale et situationnelle. Euh, dañoo dañ ko jiit dañ ko ëpp sax expérience euh, mais euh, c'est un homme d'autorité mm-hmm. et loolu day dal xel un ministre un premier ministre bu am autorité dafa dafa dafa baax voilà dafay dafay dal xel kon Tawara dañuy daal di yëkkati jotaay bi. oui ah. on le tour ah. <laughs> Maïmouna Ndoye Faye ñu a baax ah. bi édition spéciale ci biir journal 20h. mais mais mais mais euh, c' est l' actualité euh, qui l'a qui l'a obligé n' est la la toujours euh, dans les moments forts de l' actualité surtout en ces moments inédits comme j'aime bien le dire de de de l'histoire du Sénégal c'est c' est des la 7TV vous accompagne dans ces ñu terminer en rendant un hommage appuyé à Mohamed Boun Abdallah Dionne. Encore une fois. Mm-hmm. On a d'ailleurs euh, deux éléments. Euh, un élément euh, mu nekk sa dernière adresse au peuple sénégalais en tant que candidat à l'élection présidentielle euh, ñu génnewaat ko mu nekkoon la dernière euh, vidéo bi mu def comme candidat et puis euh, un portrait ma bàyyi leen ngeen euh, ngeen lancé ko ñu rendre ko hommage parce que euh, cette journée a été marquée par la composition euh, du premier gouvernement sous l'ère Bassirou Diomaye Faye euh, mais aussi par la perte euh, d'un homme de, de devoir d'un serviteur de la République d'un homme loyal dévoué très généreux très ouvert très serviable en la personne de Mohamed Boun Abdallah Dionne mm -hmm. Nos programmes se poursuivent, on se donne rendez-vous. On ne se donne pas rendez-vous, on, vous, on leur propose les deux éléments. Oui, voilà, on leur propose sûr. les deux Je éléments et, et, et nous... xaaral am ku lay xaar. asalaamualeykum mbokki Sénégal man Mohamed Boun Abdallah Dionne seen frère seen xarit. maa ñëw tey di waxtaan ak yéen. à l'image du président élu Bassirou Diomaye Faye lui aussi proposait de réformer les institutions de la République et d'assurer une souveraineté alimentaire aux populations du Sénégal. Mohamed Boun Abdallah Dionne, candidat à l'élection présidentielle de a très tôt dévoilé son programme aux Sénégalais. sama programme nag dañuy tënk fan yi ku xool li fi xew yëpp xam ne jot nañu génnewaat réforme bi nga xam ne mooy le CNRI waxoon. conseil national de réforme des sama engagement mooy incha allah ñu appliqué ko. Le 9 mars déjà, il faisait sa première apparition à la télévision nationale dans le cadre de la campagne électorale. Dans sa man de boo leen ma joxee lenge incha allah le président de la réconciliation nationale. Mieux.

des réalisations qu'il comptait mener durant un seul et unique mandat s'il venait à bénéficier de la confiance de ses compatriotes. man benn mandat unique lay def juróomi at ndax defe naa ne boo nekkee juróomi at chef de gouvernement juróomi at président jot na nga bàyyi keneen jël réew mi di dox. Auparavant pressenti pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mohamed Boun Abdallah Dionne fera finalement cavalier seul après le choix porté sur Amadou Ba. et il s'efface de la sphère médiatique. Il sera plus tard évacué en France, où il rendit son dernier souffle moins de deux semaines après le scrutin présidentiel. Aucune précision sur les causes de sa mort, mais l'ancien Premier ministre vivait avec un seul rein, l'autre qu'il avait offert à son épouse, qui souffrait d'insuffisance rénale. Si Aminata Touré avait opté pour la continuité du Yoonu Yokkute en tant que Premier ministre, son successeur Boun Abdallah Dionne, lui, arrive avec une nouvelle vision à la primature, tout en reconnaissant les signes de relance économique produits par Yoonu Yokkute avec une croissance de 4,5% en 2014. Le nouveau patron de la primature décline une nouvelle vision condensée dans un plan pluriannuel dénommé le plan Sénégal émergent. Lors de sa déclaration de politique générale ministre explique que le PSE capitalise l'ensemble des engagements de politique sectorielle. donc le précurseur ou le premier Sénégal émergent. Sa carrière politique est indissociable du PSE, qui est toujours le leitmotiv président Macky Sall. Nommé chef de la primature en 2014 et reconduit en 2017, Mohamed Boun Abdallah Dionne est probablement le premier ministre qui le plus de satisfaction au président Macky Sall après avoir jeté avec brio les premières bases du Ce technocrate, né le 22 septembre 1959 à Gossas, est d'abord passé par l'IBM et la CDAO avant d'embrasser une brillante carrière diplomatique. Chef du à Paris, puis expert à la conférence des Nations le commerce et le développement au Maghreb, l'homme n'est pas sans un parcours qui accroche. Un de technocrate qui lui a permis de gagner le respect et mais John est d'ailleurs le seul Premier ministre à ne pas avoir été remplacé ni démis de ses fonctions de manière directe. C'est seulement après suppression du poste de Premier ministre qu'il a été obligé de partir. Partir sans jamais se départir de son chef de parti, à qui il est toujours resté loyal. Cette loyauté et sa discrétion, tant chantée par ses pairs, pourrait bien lui valoir un retour triomphal au devant de la scène. À l'instant donc le portrait de Mohamed Boun Abdallah Dionne qui nous a malheureusement quitté aujourd'hui comme ni leen ko doon waxee sànq ñu koy ñaanal bu baax a baax il sera inhumé dans son Gossas natal euh, sous peu xam naa dinañ ci ànd euh, ci ak yeneen élément incha allah suñu yeneen euh, édition alors ñuy tàggatoo nekk ñuy tëj sur ces mots Germaine maamoon mbégte lool ci bokk ak yow plateau bi bien sûr avec Maimouna Ndour aussi ñu ngi doon mbégte bi c'est euh, euh, spéciale boo xamante ne dañ leen ko proposé pour rek euh, dara bañ leen ci publication équipe gouvernementale bu bees bi nga xamante ne dégg ngeen ko cinq vingt cinq ministres ak cinq ministres d'État il de de nouvelles têtes mais c'est c'est c'est de de de ce Euh, euh, satisfaire les doléances des des Sénégalais Maïmouna Ndour Faye le mot de la fin. Merci avec les belles ah, la fille de Jésus, euh, Germaine Anastasia Diouf, beaucoup bëggee tagg rek ne la fille de Jésus. Ah, euh, Tabara, la petite fille de Macron. <laughs> doomu Sénégal. <laughs> voilà petite fille de euh, de de mhm. alors en tout cas merci beaucoup euh, bonne chance euh, à cette nouvelle équipe euh, bonne chance à ce duo Bassirou Diomaye Faye. Euh, Euh, Ousmane euh, Ousmane euh, Sonko et puis encore une fois nos pensées vont à la famille de Mohamed Boun Abdallah Dionne nos condoléances les plus attristées mhm. nous partageons pleinement cette peine avec vous et avec tout tout le peuple sénégalais et puis moi je vous retrouve lundi invité de MNF avec le brillantissime euh, journaliste, analyste politique et euh, depuis quelque temps ancien euh, ministre conseiller chargé de la communication euh, de l'ancien président Macky Sall, euh, muy euh, mon, mon directeur de rédaction Yoro Dia donc mais bu amul un bouleversement le, le week bien bien sûr on sera là et on va accompagner nos nos téléspectateurs. Bien sûr, et on peut terminer bien sûr sans remercier en tout cas toute la rédaction qui a également participé à fournir cette édition spéciale. Euh, Faté Oumukien, également merci à la régie qui nous a mis en image et en lumière. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا